والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi gannaaw sant suñu borom jalla jalaaluhu azza kamaaluhu julli ci yonentam alayhi afdal salaatu wa xayru taslim moo ngi leen di nuyu leen sant leen ndokkeel ci daje bi di leen balu xaq di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal parce que yéene waxtaan wi jëm ci lislaam bu ci noppee laaj yi ñu déglu ko lislaam dafa am bunt am biir biir ba nag yemewul fenn am na tàmbali waaye amewul yemi ndax suñu boroom yemewul fenn digganteem ak jaam bi yemewul fenn bunt yàlla nag mooy imaan ñuy wax ngëm gëm taarifam moo di pas-pas la ci xol nga fas ci sa xol li nga fas dañ war ko waxtaane wax ko ci sa lamiñ moo am ay seede xam ne yow muy jullit nga buñ la xamul woon démb nga jëfe ko ci sa ay cër ndax diggante cër ak xol bu mu ko xat moo leen yeew xam ne lu cër jëfe mu jeexital ci xol waaw noo nga xam ne noonu la itteele moom jëf ndax lépp ci la aju ndax mooy ubbi xol mooy ci jeexital mooy melal nit ki ni mu mel melal gi muy melal nit ki ni mu mel nag moom jëf ndax jege xol ni mu sësee ci jëfi cër moo waral loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa tax li nga xam ne noonu la ngëm itteele nga xam ne mu ngi mel nag doomu xar muñ la jox nga war koo yafal ba mu mat sëkk wala doomu nag nga xam ne nu mu toll ci réyaay sa yafala ni toll ak sa itteewoo nu mel ci rafetaay sa itteewoo ko ci sang ko ak fonk ko dem ngëm buñ ko waxtaanee gannaaw mooy buntu l'islam mooy itam tawxid tawxid mooy iman l'islam mooy xam atte yi jëfe ko mooy cër yi tasawuf mooy sellal ba tey dellu ci xol ñu ne nag li ngam itteel tax na jëf ak jege gi mu jege jëf nga xam ne ci la aju tax na jëpp-jëf joo xam ne dañ koo seet mu am cër bu màgg ci xol am cër bu màgg ci diggante nit ki yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam misaal ngëm wala lislaam ci jëf ju nekk ci jëf yi nga xam ne moom la ñu tànn xam ne daf naan jëf sàngam mooy genn wàllu ngëm jëf sàngam mooy diine jëf sàngam mooy lislaam mu ne nag sell laab mooy genn wàllu diine xam ngeen ne laab jëf jëpp joo xam ne jii day jegeel nit ki yàlla muy li ñuy teewlu dafa laaj laab ndax mooy tax cir bi mën a jeexital ci xol bi li muy jëf laab itam dafa cee boole sell te sell mooy xol bu sell daan waxtaane xol na muy sell ak sellam lu muy indil nit ak bu sellee na bunt yi nga xam ne moo ko taqaleeg cir di ubbi ko ba nga xam ne lu nit ci jëf ci liñ ko sant na muy dal di def ci xol ba ndax sell boobu nu ci wax ba tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne mooy genn wàllu diine ni mu ne kon taxawuru chatrul imaani laab mooy genn wàllu diine mooy genn wàllu ngëm mooy genn wàllu lislaam alhamdulilah yamla ul misaana jëkki-jëkki delloo sa xel ci ni la suñu borom def def la ngay doom aadama bokk ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di nit suñu borom wërsëgalee ngëm wërsëgalee la la ca topp lépp nga ne alhamdulilah wala geneen xéwal gu mu doon moo xam jalaa'ilu ni'am la wala daqaa'iqa nga ne alhamdulilah alhamdulilah jooju yam la ul misaan yomal xiyaam bu jaam bi taxawee ci kanamu boromam ñuy peese ay jëfam alhamdulilah dañ ne duñ ko teg ci balance bi ndax balance bi attanu ko dañuy seet yeneen jëf yi ba noppi ba nit ki manqué le ba manqué le bu ñu indee alhamdulilah nag mu fees bépp ndax bu mu taata noonu moo tax sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah yamla ul misana alhamdulilah day feesal balance yi wa subhanallah walhamdulilah tamla ma bayna samaai wal ardi jekki-jekki ne subhanallah walhamdulilah daana waxtaane yooyu yépp fu mu fàqee ak lu ko waral ak na muy doxe ci xolu nit ki ak na muy jëmee ci ay jikkoom ak nu mu koy def ba fa mu koy jëmale ak na mu koy mujj melal alhamdulilah yamla ma bayna samaai wal ardi alhamdulilah yonente bi salaa sallam nee na ci tuyaabaam day fees li nekk diggante asamaan ak suuf kon leer yu fees diggante asamaan ak suuf ku ko dekkiwaale yomal xiyaam ci lëndëm gu tëx ga da nga xam fooy teg sa tànk da nga xam fa nga jëm da nga mën a demit dem bu ànd ak xel mu dal ak gu wóolu mu dal ne wasalaatu nuurun julli ak leer la waaye am na charte na ngay def ba julli di leer ba mu leeral la leeral di gën ci leeral mu ngi ci biir waxtaan wi wa sadaqatu burhaanun sarax aw lay la ëllëg ci bàmmeel ak ci bu la borom xaq yi wëree ëllëg ku nekk di fayu di ngeen li ci suñ jox ci masalikul jinaan wa sabru diyaun ba tey sallallahu alayhi wasallam dafa ne ak sabru nisful imaan yi ngëm mooy genn wàllu gëm muñ mooy genn wàllu gëm maanaam muñ mooy genn wàllu diine diine niñ ko waxe woon mooy na nga ko fase ci sa xol wax ko ci sa làmmiñ ñu di ko dégg nga jëfe ko ci ay cër ba mu fees la ba suub la ba sotti la ba jële la fii yóbbu la fee wal qur'aanu xujjatun laka aw alayka alquran nag aw lay la waaye benn muy lay wu la ñeel di la layal ëllëg wala muy lay wu dal ci sa kaw ne la lu tax nangam ak nangam jëfe la ko kon yooyu yëpp nga xam ne mooy kon jëf yi nga xam ne seen jeexiital ci nit ak ci xol dafa rëy ba sallallahu alayhi wa sallam mi bëgg nga xam ne itteem du dara lu dul nit ñëpp jullit ñëpp texe mu yeete ci loolu mu ne kullu naas yaxdu fa baaiu nafsahu fa mutiquha aw mubiquha doomu aadama yëpp bu ñu xëyee wax bu ñu xëyee dañuy jaay seen bopp ñu ngi koy jaayee ci seen lamiñ ak ci seen i cër la ñuy def la ñuy wax fa ñuy teew ak lii seen yéene fa baihum nafsahu benn fa muxtiquha ki nga xam ne bu mu jaayee boppam ba noppi dana ko goreel dana ko jëndaat def ko mu dis gor jënd ko ba mu dib jaam mu def ko mu dis gor ak ki nga xam ne aji alak la boppam ca ba mu ko jaayee la mu ko jënde dal di nekk jaam ca loola le mu ni salaatul man kunna fihi wajada xalaabatal iman ñett ngi nii yoo xam ne képp koo xam ne nekk na ci yow da nga mos cafka bànneexu gëm yàlla nga ne ko yooyu lana lan ak lan la mu ne mooy yàlla ak yonent bi gënal la lu mu doon lépp lu dul yàlla ak yonent bi yàlla ak yonent bi gënal la ko nga bëgg sa mbokk wala nga bëgg ab jàmbur wala ku mu doon rek te dara taxul du njëriñ lu mu lay jëriñ du lu mu lay defal du fu mu la féete nga bëgg ko bëgg koo xam ne yàlla dong dong nga tax te leneen taxul muy lu foor loo xam ne dina ñëw ci waxtaan wi ndax wax na tànn nañu ay yoon yonte yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bi ko suñu borom masee laaj ne ko ndax yow mas na maa defal dara mu tudd lim jaamu yàlla lépp lu mu tudd rek mu ne ko du loolu ba mu jaaxle ne ko kon lu ma lay defal lu ma la mën a defal mu ne ko mooy nga fekk koo xam ne gëm nga ne bëgg naa ko nga bëgg ko ngir man ngir bëgg gëma ko bëgg loolu nga ma defal dëgg loolu mooy jëf ji nga xam ne moo ma jot dëgg nga sib dellu ci càggante ni ngay sibee ku la dugal ci safara ku la sànni ci safara kon nag ngëm moom bu saxee ci xol ba dëgër ba sax ay reenam dafa am yi muy laaj ci nit ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam dellu ne ak sabru nisful imaan yi muñ muñ mooy gën ci lu ab jaam dimbalikoo ngëm nag mooy mën a tax mbiri adduna yi dox suñu digganteeg yàlla yi dox suñu digganteeg suñu diine yi dox suñu digganteeg suñu ngor lépp nu mën koo bët muñ moo nu koy may ak sellal ak teey lu mbir yi ba xam ko soog ciy dugg wala nga soog ciy jëf ak di xalaat foo toll bañ a gëmm rek nekk gumba guy palamtu ak tudd yàlla gu bari dana waxtaane loolu bu ko defee gannaaw ngëm nag mooy li tax nit ki xettali ko ëllëg war na noo xam li koy yokk xam li koy wàññi xam li koy dëgëral xam li koy woyafal ñu tàmbalee ci ne xataru ixtilaati danger bi nga xam ne moo nekk ci jaxasoo bu bari ak nit ñi te doo xam da ngay jaxasoo ñu njëkk a génne ñu njëkk a dàq ci jaxasoo li ñu tudde majaalisu saqawa majaalisu saqawa mooy jataay yi texee di la muy mel nu wattandiku di faral a jaxasoo nit ñi nga xam ne lap nañu ci mbiri àdduna lap nañ ci àdduna ba moomatu ci seen bopp dootuñu dellu si mukk jaxasoo boobu bari yuñ ci wattandiku yi ci jiitu afaatu lisaani bakkaari lamiñ ak gàkki lamiñ ak dëng-dëngi lamiñ ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom bindul ci jaam bi cër bu gën a mën a lore lamiñ buñ xamee nag ne lamiñ lu mën a lore la daanu ko wattandiku kon loolu daf ñuy daal di xamal ngëneelal noppi wax ci loo xam ne lii sa yoon nekku ca wala loo xam ne xamuloo ko musiba la te wax nit ki daf ci sànq jamonoom te nit ki capitalam mooy jamonoom li muy dund jamono boobu nag nga xam ne waxtu wu nekk mën na cee am lu ko jëriñ ëllëg lool mu sànq ko ci loo xam ne amul njëriñ lu dul am bàkkaar te am lor moom la dara jarul nit waxtandiku kon ko mu bari waxtaan ci la po nekk ci la werante nekk ak dàgg sante yëpp ay gàkk la def ay sikk ci xol di texee di nit ki ci la xuloo nekk te xuloo ak werante li ci yées werante woo xam ne donte am nga dëggit sa bopp a tax sa njëriñal bopp rek tax ji dañu ne nit du mat féeg du bàyyi na werante daanaka bu amee dëgg sax bañ a werante tax mu gàttañ lu noppi bu fekkee nag nit ki mooy day werante ngir leeral dëgg goo xam ne dafa am njëriñ te daf cee bëgg a jëriñ nit ñi jëriñ ca boppam foofa yoon may na ko fa werante waaye nag bu mu def li ñuy wax àll jaaja bu mu ko topp ndax topp werante bu mu ëpp day dal di indi noone ak mbañeel jaxasoo gi ak wax ju bari wax ju ñaaw ci la fekk baax te dañ koy bind te bu ëllëgee day teew ci sa kanam ak ñaawaayam boobee ne meloon ak saaga ak nett li mbirum nit moo xam ne lu mu bëggul ku ko nett li la bàkkaar bu rëy la am yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas a am benn jigéen bu ñu ko daan taal ndax farloom ak jaamu yàlla bu bari ba mu yéem ko ñu tegal ko ci nag ne ko nag waaye dafa ñaaw lamiñ de day lor ay dëkkaaleem ci lamiñam mu ne kooku day amul benn yiw nitu safara la nga xam ne kon lamiñ moom bokk na ci yi gën a mën a lor jaam yi gën a mën a lor jullit mu ni ki yées ci nit ñi mooy ki nga xam ne nit ñi daañu ko wattandiku ngir lamiñam nga xam nit ñi daañu ko ragal ngir wattu waxam yu ñaaw nee na moo yées ci nit ñi waxtaan ba tey gannaaw yooyu nu waxoon yépp it ci la ree ju bari fekk baax te ree ju bari day wowal xol kaf gu bari loolu itam day dindil sa sag wegu kenn dootu la wekk bu fekkee ne da nga koo def aada fa toll nee ñu nag dëgg léeg-léeg mu bu ci dëkkee dana tiis ba nit ki dana aajowoo léeg-léeg def tasliya ba kanam wax tuuti kaf yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana kaf waaye lu néew la daan kaf te li mu daan wax rek ci kaf it dëgg rek lay doon ndax bakkan itam buggul teengal ba mu ëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bis mu toog mu toogee ci néegam am ay jigéen yu fa nekk muy wax ak ñoom di ree sidna alin dugg si ñu continuer di wax di ree sidna abubakar dugg si ñu continuer waxtaan di ree sidna usman dugg si ñu continuer waxtaan di ree sidna omar dugg si rek ñoom ñëpp ñu daal defar waat toogaat bu njëkk ne pat kenn waxatul yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di dal ci kaw sidna omar ne ko ëppal nga sa teengal gi metti na boole ci tuuti yërmande waxtaanit bu baree ci la jëw fekk baax te benn baatu jëw fukki moye ko gën ndax lu mën a dem daraja fa suñ borom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas a am benn jëm boo xam ne dafa moyoon ñëw ne suñ borom man de damaa moy te sëyoon naa lu war ci man nañ ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di woolu mbooloo ñu woo ko ñu wooloo mbooloo bi ba ñëw ñu daal di cay def la ca yoon wax mooy ñu rey ko ñu ko reyee ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dem am ñaari gaay ñu ko topp dal ci kaw waajooju ñu rey rek di wax ba ñu fekk yonent bi di wax ba jot sallallahu alayhi wasallam meddu mbaam mbaam moo xam ne dafa dee ba nëpp mu ne leen ñëw leen ngeen lekk kii maanaam li ngeen di def de lekk kee ko gën ndax waa ji ngeen di jëw de seen naa ko ca àjjana muy dire ay ay mbubbam ndax suñu borom mu ngi misaale jëw ci alquran lekk meddum doomu aadama lekk doomu aadama sayidatna aïcha radiallahu anha wala sayidatna fatima radiallahu anha benn bis benn jigéen ñëw na fi yonent bi romb di dem mbub mi gudd mu ne aka gudd mbubb mu ne ko xaxtandikul xaxtandikul mu xaxtandiko tafli lumbu deret wadd mu ne ko soo ko menacé woon tudd giñ lay tudd dima tudd du la jëriñ da yomal xam fokk nga jaar safara benn bis mu ne hasbuki min safiyata hakaza safiya soxna si yonent bi la woon salaa sallam kon wujju sayidatuna aïsa la mu bëgg a wax ne sayidatuna safiya ku gàtt la mu ne ko nii la toll sayidatuna aïsa wax ko yonent bi salaa sallam ne ko wax nga baat boo xam ne lay buñ ko sotti woon ci géej yépp mu xorom ko ba mu wex maanaam bu géej yi lewatoon buñ ko ci taflee mu mu wex alquran dafa ne waylun li kulli humazatin lumaza allazi jamaa maalan wa addalahu ila axirihi ndax yëj ji nit ak wakkante ki dox am ayib nga di ko jinj ak sa lamiñ wala sa baaraam wala say bët mooy xam zoog lëmsu xayiba nit ci faddu ak ayiba nit ci teewam ba gannaaw bàkkaar bi ci nekkit dafay sax ak mbañeel sa diggante kooku te am na nit ñoo xam ne luñ dégg dem nekk di ko kañ ko waxoon naka noonu reyataan nit wala xeeb ko lu ñaaw la ndax yow xamuloo sa mujj ëllëg képp kuy dund te deewa ko xamuloo looy mujjee ki nga xam ne mi ngi jëm ci xare nag wala fi dañ ne waru la ree ki ñu jam ndax nit ki li takku ci moom mooy mujj gi rek ku mujje mujj gu ñaaw di ko texee di ku mujje mujj gu rafet di ko texe te nit mën na nekk ci yoon wu jub ba seen saa teekoo dee mu jëf jëfi waa safara suñu borom boole ko ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe naka noonu safaan ba itam nit mën na dëng di def lu dul noonu di def lu dul noonu ba tuuti defe ko ci dundam mu jàdd def jëf jëfi nit ñu baax ñi suñu borom moom ko te loolu daan waxtaane loolu insha allah kon nag fii nit ki xamagul ëllëg ci lu muy mujj waragul a xeeb kenn waragul a yàq kenn jullit sax bu dee digal moroomam am na anam bu mu ko war a digale digal ko wax ju nooy ju woyof yoo xam ne ndax am na nit ñoo xam ne dañu am nañu tuuti ci rëy boo leen waxee dëgg it am na waxee boo leen ko ko waxee rek ñu daal di rewal si dootuñu déglu sa dëgg ga te du leen jëriñ te kon leera loolu leen da ngeen da nga leen a lakk kon bokk na ci li joxe tuyaa ba ju rëy boo xam ne sa mbokk mu jullit loo xam ne war nga koo xamal benn mu juum def lu dul noonu ca waxin wa nga koy waxee rek nga koy laabiire ba mu nangu say wax daganul fasiq maanaam kuy jëf-jëf yu ñaaw te du ko nëbb nit di ko tagg wala kuy tooñ ay nit nga di ko tagg tagg ko aram na naka noonu ñaaw njort ci jullit ñi yooyu yëpp nag boo ko bëggee ban fokk li ñuy wax mujaahada xeex ak sa bakkan maanaam jihaadu nafsi lay doon ndax ni ma ko waxee woon sànq rek cër yëpp muy lamiñ muy bët muy tànk muy loxo bu ci nekk jëfam day jeexital ci xol kon ni jaamu yàlla yi boo ko sellalee rafetal ko na muy jeexitale ci xol bi noonu la mooy yàlla yi itam day jeexitale ci xol bi muy jëf jëw jëw wala wax loo xamul wala lekk lu léwul wala lépp lu mu doon rek day jeexital ci xolu nit ki di ko lëndëmal di ko ñuulal bu fekkente nag yooyu yëpp lu ci nit ki bàyyi bañ koo def ngir jëmm yàlla jëf moom mi ngi aju ci yéene ji rek na yéene ji toll lay toll jëf dëkk ju ci nekk payam ëllëg na muy nekk bànneex noonu ci sukuraat lay nekk bànneex doomu aadama itam bu fekkee ne jëfam yu baax bari na lool te mu ñàkk ay gàkk ba xolam set jëf ji bu koy jëf sax dana ci yëpp bànneex boo xam ne ci jëf gi dootu tàyyal daf ci sawar ba nga xam ne jëf sax lu metti metti moo koy gën a jëf buy jëf moo koy gën a bañ a jëf buy jëf buy jëf dootu soxla lekk dootu soxla naan ndax jëf ji muy jëf ni muy yëge jeexital ji ndax xolam bu set daf koy indil bànneex boo xam ne ak mbég ak xir ci li muy jëf du yëg coono bi bànneex rek la ci yëg te xam yàlla mooy bànneex bi gën a màgg ci ci ci bànneex yi mel ne ku ko namm mooy koo xamoon xaritoog moom dëkkat moom du ngeen tàggoo ba mu yàgg lool nga xam ne am na ci sa xol cër bu rëy nga jékki-jékki géej koo gis ba mu yàgg ni nga koy namme namme ko yàlla dafa am ci jaamukatu yàlla yi ñoo xam ne noonu la ñuy mel noonu lay mel ci ñoom loolu nag day doon bànneex boo xam ne du am daye ndax nee ñu dayo meññetum diine ci àdduna mooy xam yàlla ak wétliko ko ndax boo xamee yàlla dëgg dëgg dëgg da nga toog ak suñu boroom ay jataay jataay yooyu bànneexam boo ca tolloo buñ la dugaloon ci safara sax doo ko yëg ndax nee ñu waa safara sax bu leen suñu borom feeñu woon dootuñu bëgg a génn safara dootuñu bëgg a dem àjjana sax loolu nag boo bëggee am mucc xol bu mucc mooy maye maqaama yooyu fokk nga setal sa xol ci nifaq mooy naafiq yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ñeent ku mu nekk ci yow naafiq nga nifaq mooy naafiq mooy koo xam ne day feeñal lu néewul ci moom koo xam ne ngëm gi daf koy wane ci kaw te ngëm gi dëgguwul ci xolam dëggu gëm war a dëggu koo xam ne zahiram wuute nag baatinam baatinam moo gën zahiram li nit ñi xam ci ñoom moom ak li ñuy gis la ca biir ko la ca biir ko yees kooku mooy naafiq mun nag ñeent ñi ku mu nekk ci yow rek naafiq nga ku ci am benn nit am nga ci nifaaq lu toll noonu nee na loo julli julli loo woor woor loo wax wax ne jullit ngay naafiq nga rek nga ne ko ñett ñeent ñooñu ñan la mu ne alaamatul munaafiqi salaas ñii ne arbaun ida haddasa ida haddasa kasaba bu waxtaanee rek fen bu waxtaanee ba waxtaanam neex fokk mu wax lu dul dëgg ndax yàlla teewul ci xolam du yëg yàlla yëgu yëg ko nga xam ne mooy yëgu teew gi mu teew ci xolam ba ragal ko du manqué itam ba yëg wax lu amul ni bàkkaaram mel ak mbugalam na mu demee waaw léegi mën naa gàtt naan takkusaan sax léemu nee na naafiq de waxtu waxtaanee fen bu la léegee dara it digal la ne naa def nangam du ko def boo ko wóoloo ci seet dara itam mu war la ca ñett ñàngoo ñeent ñi waxtu wu xuloo wax caay-caay bu xuloo rek dina wax caay-caay mooy ki nga xam ne amul ragal yàlla koo xam ne moo ko laxaat ba di ko yemale fa mu war a yem kon moom dafa yàqalu boppam rek lu ko neex def lu ko neex wax bu xolam tàngee lu ko neex mu wax bu xolam seddee lu ko neex wax du seet dëgg du seet ëllëg du seet la cay mujj nifaaq nag bu boo rëyee ba rëy fokkee ne borom delluwul gannaaw jéemu koo xeex jéemu koo wàññi jéemu ci dara lu dul wéy ci rek day daal di indi mujj gu ñaaw li ñu doon waxtaane sànq mu du ñaaw mooy lan ñaar ci yi koy waral ñaare ci ëpp doole benn bu njëkk bi lu foor a foor lu rëy la lu raglu lu doy waar lu jar di xalaat foo toll la loolu mooy lan nit ki bu tolloo ci sukuraat sopp na adduna sopp boo xam ne sopp gi rek kay teew benn ci bànneexi adduna yi wala ci mbiri adduna yi loo xam ne rek jël na xolam bépp nga xam ne fu mu toll di ko xalaat mu toll ci sukuraat loolee mu bëggoon ci adduna rek teew ba lëm xolam takkadoor boobu muy teg ci xolam yiir diggante boog suñu borom tabaraka wa taala leer yàlla dootu dugg si ca xol ba malaayka mi nëpp ruuga mu nekk ci diggante boobu boobu mooy ñaareel bi gën a rëy nag mooy weddi wala sikki sàkka lenn loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko wala alquran wax na ko nga am ci sikki sàkka donte xamuloo na mu demee it gëmuloo ko ndax gëm moom ñaar li ñu wax imaanul ajaïsi mooy ngëmu màggat yu jigéen yi moom la sidna Omar daan ñaan am ko moom la tubaab di wax la foi du charbon ñuy waxtaan nañ ko ay yoon doo seet lii naka la war a mën a amee loo xam ne gannaaw lii alquran wax na ko wala yonent bi salaatu wax na ko rek amatoo ci sikki sàkk amatoo ci looy seet loolu mooy li am bu fekkente ne nag nit ñi duñu benn am na ñoo xam ne li ñu mën a gëm mooy li seen xol mën a li seen xel mën a seetantal ba mu leer bu fekkee ne bokk nga ci ñooñu bu sa xam-xam bariwul lool danañ la wax yoo xam ne yow doo ko mën a gëm nga am sikki sàkk weddi googu nag ak sikki sàkk googu mooy kiiraay lu mag li nga xam ne mooy lëm xolu nit ki ba mu dee ci kéefër wal iyaasu billah loolu kon ñaar yooyu lu mat di wattandiku la te ni ñu koy wattandikoo fii noo ngi dund mooy jihaadu nafsi bi nu waxoon jihaadu nafsi boobu mooy jihaarante sa bakkan ndax bakkan lu ko neex rek ci la lay xiir te lim lay xiir mooy li lay yor ëllëg waxtu woo xamee ne nag kiiraay am na mu gën daal di wàcc ndax safaraw suñu borom ba mu taal de ñi di ko xamb mahjubuuna yi rek lay jàpp ëllëg maanaam ki ñu yiir digganteem ak yàlla ki nga xam ne xolam diggante xolam ak yàlla am na kiiraay lu ci nekk kooku rek la safaray lekk moom la safaray lakk waaye ki nga xam ne xolam amul kiiraay digganteem ak boromam waxtu wu doon jéggi siraat sax safara yi ci boppam day bëgg a fay daf naan ko yow aji gëm ji gaawal jéggi ma ba dem ndax sa leeru xar kanam gi day fay sama safara wi kon doomu aadama bi war na seet ak dundam nan la koy dundee ci lan la koy passé ndax yamutul maru ala ma ash alayhi nit mu ngi deexee ci nim dunde rek ci la mu passé ak dundam bu dee ci po ci po lay dee bu tolloo ci sukuraat po rek kay nekk ci xel bu dee itam alala moom xolam ba mu ëpp itam bu tolloo ci sukuraat xol bi ci alal rek lay nekk bu fekkee ne itam ci daraja la bu tolloo ci sukuraat loolu rek kay nekk ci xol yooyu nag mooy indil sukuraat soo xam ne sii boroom day jàngloog ay jëfam yu ñaaw te du gis benn jëf bu rafet ndax kiiraay li yiir digganteem ak leeri yàlla mooy tax dootu gisati jënn jëfam ju rafet bu ko defee mu dal di ñaaw njort ci boppam deewaale kiiraay loolu ak ñaaw njort gi ndax suñu borom dafa ne ana inda zanni abdi bii falyazunna bii ma shaa sëñ Tuubaa wax na ko man kat fa ma sama jaam bi toll rek fa ma fa ma jortu rek laa koy toll kon na jortu ci man lu ko soob waxtaan nañu ay yoon ne Seydina Yahya alayhi salaam ak Seydina Isa alayhi salaam dañ daa def waxtu wu ñu dajee rek yonte yàlla Isa ne yonte yàlla Yahya yow daal yaa ngi mel ne ku ñuy bëgg ba ma safara rek fu ma toll fu ma dajeeg yow rek yaa ngi am naqar yaa ngi njàq yaa ngi tiit waaw kon ñu julli jubatee nan def ñu leen julli ji tëñu waaw kon ñu julli ba noppi bu ñëwee àggale waxtaan yi soo nga dem ci laaj yi xam nga insha allah ndax jotaay yu mel nii dañ koy fut fullaal ndax day namm xol day fóot xol di jëlloo ci nit ki di ko fàttali loolu lu mag di bari la ñun lépp loo ci jëlee woon ci fàttali tàmbaliwaat boog ma ne woon insaanu yamutu ala ma aasha alayhi nit ki ca nam dundee woon rek te loolu lay deewee nit bu tolloo foofu xolam demee noonu li nga xam ne mooy xatar ji dootu mën a dindi melowowu xolam mel ndax xol li koy soppi mooy jëfi cër yi te cër yi mënatu la jëf ndax dee gi moo tax cër yi jëfatul bu ko defee xol bi melo woowu lañ koy roccee ñuy roccee ruu gi ci la moom lay yóbbaale waaye nag ba tey ci yërmande yàlla nit ki bu fekkee ne gëm na yàlla sax ci diiru dundam ak jëf yi mu doon jëf ci lu baax dana di wallu si léeg-léeg bu ñëwee mën na fomp benn mu fomp meloo wépp wala mu fomp ci lu bari wala mu fomp ci ak lëf kon doomu aadama bi ngëm gi mu gëmoon ak jëf ji mu daan jëf ak ni mu bëggee woon suñu borom dana wallu léeg-léeg jamono jooju la fekkente nag ngëmam kàttanit ngëm gi ci xol bi bi muy dee dafay lu tuuti waaye feeg am na ci dara rek lu mu tuut tuut du sax mukk ci safara maar bi teel bu tàbbiwoon ci safara it ndax bira bu ngëm ci nit suuf du ko lekk te mooy roo lu mën a am li muy mujje mooy dem àjjana bu fekkente nag lu toll ne pepp zara rek la am ci ngëm kàttanu ngëm gi noonu rek la toll mën na ca sax ay junni junni at waaye dina mu jigéen ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bàmmeel daan na mu di kan kanum safara ngës mu bokk ci safara wala muy dër bu bokk ci dëri àjjana kon bàmmeel nit ki nekk ci bàmmeel tàmbali na bu dee xéewal tàmbali na bu dee sifaan ba tàmbali na ndax daañu ubbi juróom-ñaar fukki bunt yu safara mu jëm ci bàmmeel ki texee di naka noonu lu ko ëpp ci ay bunt yu jóge àjjana ba jàpp si ci bàmmeel bi ndax nit ki fi ruuxam nekk bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne ruux yi way texe yi ñi ngi ci picc yi ñu ngi ci jox picc yu wert yi far ci dëri àjjana ba ngoon jot ñu jofi ci aras way texe di ñu seen woo ñu ngi ko ëmb ci malaani weñ yu lëndëm yu ñuul yu tàng waaye mépp mbugal bu ñu mbugal ruu gi wala gépp xéewal bu ñu xéewal ruu gi ci bàmmeel bi la ko nit kuy yëgee même bu fekkonte ne jëmm ji ràpp na ba nekk suufit mu mel ne rek dafa am ci misaal fiil goo xam ne moo jàpp ca faru ga nekk ba samp ci bàmmeel bi nga xam li muy yëg lépp mi ngi ko yëgee ci bàmmeel bi ak lu ruuga mën a daj kon ci li nga xam ne moom la ñuy mujj ci loolu ci melow nit waxtu mu fiy jóge ci ñu war a wattandiku ak ñu war a xeex ak bakkanam ndax li nga xam ne mooy sos mooy waral mujj bu ñaaw lu bare bare bari la ngëm gu woyof ci la waaye nag farlu la suñ boroom dimbalee jaam bi sant ka ko doomu aadama dafay ñaari unsur ñaari élément ruu ak ak yaram ruu leer la goo xam ne mu ngi jóge al malaw laala ci liñ binde malaayika yi ci lañ ko bind ruu ay meloom bokk na ci mën na teewanoo ci béréb yu bari ruu mën na fa mu nekk ca bar sax mu sànni cokkooru leeram ba mu ñëw ci xol kuy dund ci àdduna wala ba mu ñëw jëfandiku ci kuy dund ci àdduna ruu amul yemukaay ëppante nañu gën nañoo diisante waaye amul yemukaay ruu li la ciy doon misaal malakul mawti benn malaayika la bu fekkonte ne xeex dafa am ci fa gën a sori ci sowu beneen guerre am fa gën a sori ci penku nit ñi dee par ay junni junni genn ru bu ci nekk moo koy rocci te kenn la ñun xam ne malaaka ruux la malaaka ci boppam am ruux la am na ruux itam waaye moom ci boppam ruux la ruux gi bokkul ak ruux gi mu am bu koy dundal waaye melow ruux la amee léppam ba nga xam ne mën na teew te kenn du ko gis mën na gën a gaaw xel mën na nekkandoo ci béréb yu bari te du séddali ko du teqali ko te itam du gàkk du gaañu du tawat nit nag unsur boobu mu am xam ne ruu gi mel wow mu mel woon mel ni malaayika yi bi mu duggee ci yaram dal di tabax xam ne dañ koo war mu mel ne ku ñu tëj ci tabax ñu war koo fuqal fu ay ceeñeer jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam wane ne doomu aadama ruu gi mu am te mu jóge ci almalaw la la bu ko dimbalee ci xeex gi ko yaram wi di xeex ak bànneex yi ak naqar yi ak métit yi ak bëgg bëgg-bëgg yi muy bëgg ak mer mi nekk ci moom te di melow seytaane bu fekkoonte ne yooyu bàyyi na ko muy jànloog malaayika yi di jànloog aras di jànloog kursi yu bu fekkente ne itam yooyu du bàyyi kenn bàyyiwu ko waaye moom ci boppam xam na yoon wi muy xeexee ñoom te jëmbat ci fulaam attan cee sonn di xeex ak ñoom ba not leen ni nga xam ne ahlu tasawuf moom la ñuy def day jànloog malakutu samawaati malakutu samawaati aras ci la kursi yu ci la malaayika yi ci la ba ci xéewal yi ëllëg yi ak mbugal yi ba tey xol dafa am yu koy siyaare malaaka yërmande yuy siyaare si xol yi ci yennati waxtu waxtu wuñ fekkee xol bu sell ci bëgg leneen lu dul yàlla donte ci jamono boobu aji siyaare ji di agsi la sax mu tëbb ko bu fekkente nag yër na xol bi fekk ci bëggug leneen lu dul yàlla mu romb ko wee lan tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ala inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatin ala fataaradu lahu seen borom day am na ci bés yi ak ci jamono yi ay gilli yu muy gilli ay upp yu muy sànni na ngeen fexe ba taatan ci seen xol mu dugg ko bu ko defee yërmande yàlla ak leeram dugg ci seen xol loolu moo waral jullikati guddi yi di julli guddi di julli njël ndax njël lañ ko gën a yaakaare ci mujjug njël ndax xéwal yu bari suñu borom di wàcce ci waxtu woowu la koy faral a wàcce xam ngeen ne Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono yooyu la gane àdduna xam ngeen ne tax na bu ñuy gàmm tey xemmem dajeeg jamono yi nga xam ne moom la fi ñëwee woon ndax jamono yooyu bunt yërmande suñu borom yépp day ubbi ko kenn bañ a nelaw te ku nekk taatan saxol na ngay taatane saxol mooy ubbi saxol fàtte fàtte lu lépp ba mu des yàlla rek nga def sa xel ci yàlla def sa xel ci yërmande yàlla ak màggam gi ak kàttanam gi sañ-sañam bi ak taaram bi ak tabeem gi ak yërmandeem ju bari yi mu sàkk ay jëf yoo xam ne ne muy jeexitale ci xol moo raw yeneen jëf yu baax tey jeexital ci xol naka noonu la teree jëf yoo xam ne day wowal xol ni ki wax ju bari ak po mu bari ak seetaan po yàgg ci ndax jamono yi nga nekkee ci loolu sa xel du nekk mukk ci yàlla waxtu julli sax dana jege nga fàtte ko sa xel du ca dem wala ma am na wax ñu yu bari yu ñuy wax ci yonent yàlla suleyman alayhi salaam حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والعناق ين مؤرخون دنج سيدنا سليمان عليه السلام فدون واجال اي فاسنار غور يو ام كاتن مو تان دي لا يوبو سي خربا نيغا خامي ني فاس يي لاي خري جي فاس يي كون دال دي نيك جمتواي يي موي جيمه سي يالا tax mu fonk fas ba bëgg ko ñu indil ko fas yu rëy yu rafet mu nekk di leen raay nag ba waxtu julli wi xaw a wees bi mu dalee di seet gis loolu mu naqari ko naqari gu tax bi mu jullee ba noppi ne nañu indi fas yi teewal ko ñu indi fas yi teewal ko mu fab jaasi yi cor seeni baat ndax li mu bëgg a dox digganteem ak yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk na ci kaw minbar bi di xutba fekk mu takk benn jaaro wurus booba araamale bu ñu wurus ci góor léegi tey muy xool nit ñi ñu ba léeg-léeg mu xool jaaro bi mu yàgg mu dal di not ci jaaro bi sànni ko ne soxlaal na ma naka noonu mbub bu mu rafet itam sol na ko dal di ko di ko xool dal di koy summi sànni ndax xolam libre nekk gor dara du ko moom dara du ci am place dara du ci am wàll lu dul yàlla kon yonent yi noonu ñu dem woon ñoonu xotti yoon wi ñu war a jaar ngir bu ëllëgee du nu am lenn lenn lu nu naqari bu fekkee ne roy nañ leen suñu kem kàttan danañu jëriñ ëllëg kon wax ju bari yoo xam ne jëmul ci benn njëriñ lu dul wax adduna rek day wowal xol naka noonu nga xam ne njàpp noonu lay ubbee bunti xol te koo njàpp te néewal sa wax naka noonu muy tudd yàlla muy salaatu ala nabi muy jàng alquran yooyu yëpp day raxas nit ki bu fekkee ne bi mu koy def xelam ngi ci loolu rek ni nga xam ne noonu la féexale xolam ba dara néew ci lu dul li muy def rek julli gi muy julli wala alquran gi muy jàng wala salaatu allah bi muy def wala sikkar si muy sikkar xolam dara nekku ci lu dul loolu rek bu malaayika yërmande accès day xool xol bi dara néew ci lu dul yàlla mu daal di koy tëbb jox ko kattanu mën a jëf neexal jëf ji ci moom may ko sellal guy tax lu mu jëf ñu nangu ko bu jëfee benn ñu fay ko téeméeri junni jëf joo xam ne keneen mën na koo def ñu fay ko ñaar wala fukk wala juróom benn kon yooyu ma waxoon léegi saabule boo xam ne day fóot xolu nit ki bu ci yàggee ba mu nekk aw meloom mooy dal di doon maqaama loolu tax sallallahu alayhi wa sallam kenn ci yéen bu amoon dex ci buntu këram bis bu ne mu sangu ci juróomi yoon ndax dana am benn tilim ñu ne ko déedéet yow yonentu yàlla bu mu ne julli juróom noonu la demee bu fekkee ne julli gi nit ki jox na ko xàqam xam ne bi muy jàpp am na yéene daganal julli ndax ku amul njàpp daganal nga kàmbar di deeyaale suñu borom bi nga xamee nag jàppe na ndoxu mutlax mooy ndox mu dara soppikuwul dafa am rawxaaniya bu ko raxasee cër yi nga xam ne mooy cëri njàpp day dal di disposé xolam ngir mu mën a teewlu su àggee bu taxawee kàmbar dal di teewlu ne mi ngi taxaw ci kanamu suñu borom azza wa jalla waxtaan nañ ko ay yoon ci ay conférence soxlawul di ci guddal teewlu gi muy teewlu màggu suñu borom yëpp gi mu koy yëpp ci xolam ba mel ne xolam day toj loolu daf koy fóot fóot moo xam ne li tax sallallahu alayhi wa sallam julli ne julli ba ci geneen julli ay day far bàkkaar yi ci diggante bi mooy noonu nga teewlu woon balay dem ci yow ba set beneen waxtu jot nga def ko day mujj sa xol dootu am benn tilim bu fekkente nag sellalal nga suñu boroom ñeen fukki guddi buntu xikkam dana bëtt ci sa xol ngay xam lu la kenn waxul benn ngay nelaw di gis secret yooyu wala nga dem ba nga xam ne dañ la koy gisal di la ko wax fekk muy sa xalaati bopp ndax aji faatu mën na xol xool xolu nit fekk muy nit ku am may mënu la wax ak moom ndax xol kooku mayu ko ko mu dem gis xolu keneen ku mën a waxal wax ko ko yóbbante ko ci moom ne ko diw nangam nangam nangam kooku dem wax ko ko fekk moom daf ko gis ci gént li ko waral mooy mënu la wax ak kee kee la mën a waxal ndax benn mu am menace ba bu nekk seen diggante benn nit mu nekk ci diggante yoo xam ne mën na wax ak moom moom xewal yooyu nga xam ne mooy saafara mooy ragg yi ma ndikoon waxtaane ci ay ñaawteef ak i bon bon yoo xam ne day yóbbe nit ca lëm gën a bañ ci àdduna suñu borom bi bontu yooyu ne saabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannati ardaha as-samawati wal ardi nekk ardi samaa'i wal ardi kon yéen jullit ñi falet lidalika falyatanafisil mutanafisuna na ngeen di xëccoo na ngeen di rawante na ngeen di mënante ci wut lu baax gannaaw nit ki moroomam nawleem bu mu yamal mën ko ëpple ko gën ko neexu ko rawatina fii ci adduna ne dam foofu la ko neexu rawatina alaxira yow mal xiyaam nit ñi dekki ñii sol yëre yu rafet am teraanga bi mag ci misaal oto yi gën a rafet ci oto yi kii dekki amul lu ko wër xaaw fàlle la takk ci ndiggam kenn ki amu ko sax ki ci def dafa ngemb kenn ki survêtement ak slip wala kilot la sol xam ne dana am ñoo xam ne bëy yeeg xar yi dañuy topp si ñoom di leen ree ndax ñàkk sol dara noonu ñu ñàkk sole dara ba torox ci kanamu adduna bépp ba ñëpp di leen seetaan noonu la ñuy xiifee te duñu lekk noonu la ñuy mare te duñu naan loolu lépp doomu aadama bi mi ngi koy faggoo ci fii mu nekk ci adduna bi deewul limaamul xasali radiallahu anhu nee na doomu aadama bi féet ruuxam mu ngi ci yaramam nooxam di dem di dellu si nu mel moo ko melal boppam ci itteem bu ko neexee bokk ca buuri diine yi ëllëg mu bokk ca buuri alaxira yi bu ko neexee mu bokk ci mbaami tey yi bu ëllëgee mu bokk ca mbaam xuuxi alaxira yi. am melaw mbaam lay amee wala melaw xaj du amee mukk melaw doomu aadama bii nga xam ne moo niroog bindu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkee rek bànneex a ko yóbbu safara mu ne mbaam koox lañ koy def bu ëllëgee boole tànki gannaawam yi ak jëmiñ gi wëndeel ko ba mu miir ñu sànni ko ci safara mu daal di tëmbeelu di jàllar bi ko ci biir ne doge yàpp yooyu di jàllar bi ko ci kadir bu bax bu fekkente ne mer ak naqari deret ak caay caay moo ko tax a dem safara meloo xaju ngóom moom lay meloo buy dem safara doomu adama bi dana di gannaaw bi mu defee farata yi di dàkk li soog suñ li neex suñu borom maanaam suñu borom dara amul dara lu koy neex wala lu koy naqari weesu na foofu mbindeef mooy am lu koy neex ak lu koy naqari wala luy metti ak lu muy bëgg ak lu muy bañ suñu borom moom daf noo digal rek lu baax dinu ci fay teela lu bon itam dinu ci fay te ku ko def mu am lu ca war mu def la ko waaye amul dara lu ko mën a naqari mbindeef mënu koo def lu ko naqari ndax lépp lu mu doon ci coobareem la maanaam daf koo soob moo bàyyi koo ko def ko maa ko moo ko may kàttan itam kon amul lu koy naqari ak lu koy neex waaye noonu la demee waaye nag ci misaal lim ni jëf dana jëflanteeg doomu aadamam mel ne doomu aadama buy jëflanteeg moroom doomu aadamam bi mu naan amul dara lu may def di ca sikki sàkka wala ba di ca am xel ñaar wala ma di ko ñéeblu di ko ñàkk a néeg ni ma koy defee ci sama jaam boo xam ne bu ma gëm la ba ma gërëm ko ma war a rocci ruuxam mu dee xam ne mënu la ñàkk a mënu ma ñàkk a rocci ruuxam mënu la ñàkk a jaar si ci dee waaye bëgguma dara lu koy naqari te dee gi neexu ko ma di ci sikki sàkka ak di ci dellu gannaaw nee na amul dara loo xam ne danaa ci kii la lu mel noonu bàkkaar nag mu mel ne posen li nga xamee ne nit ki bu lekkee posen rek dee lu dul lu indil ko garab goo xam ne ci lu ci saasi ci lu gaaw garab buy tax buy dindi posen ci moom te mooy tuub kon bàkkaar noonu posen di rey jëmm ji noonu la bàkkaar di yóbboo nit ki safar ngir mu tuub kon jéggalu foo tollu ak di tuub loo ama am am solo la suñu borom nag bari na yërmande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nga xam ne abu abu musa al ashari moo ko nettali suñu borom tabaraka ismuhu dana tàllal loxoom guddi ngir ñi jëfoon jëf yu ñaaw ci bëccëg ñu tuub guddi gu nekk dana tàllal loxoom ngir nangu tuubu ñi defoon ay ñaawteef ci bëccëg bi bëccëg bu nekk itam dana tàllal loxoom ngir di nangu tuubu ñi defoon lu ñaaw ci guddi gi nga xam ne kon malaayika yi nga xam ne ñoom lay yebal yii yendu ak yi fanaan ñi ngi tàggoo suba ak takkusaan malaayika yi fanaanoon takku suba la ñuy la ñuy dem waaye bala ñuy dem yii xëy si ak si bu ko defee bu ñu dajee foofu te teqalikoo guñu boo fi jullee ñu nangu julli ga takkusaan si ñi yendu woon war a dem ñi war a fanaan di ñëw ñu daje fi te teqalikoo guñu moom it noonu jamonoy barke la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngeen di fonk jullik suba ak jullik takkusaan jullik takkusaan nag ci la aji sàggan di farala sàggane ba mu rëcc ko wala du ko julli ci waxtu ñu ko bëggee mu ne nag loolu suñu borom du dañ di ko def ba feek jant bi fenkewul sowwu xam ngeen ne bu jant bi fenkee sowwu ñu ñu tëj bunti tuub ku tuub dootuñu la jéggal jant bi fenke sowwu nag nun noo ngi koy dal di jàppe rek ci xarfiyan ne mooy bis bu jant bi fenkee nii te loolu mën na bañ a am jant bi fenke sowwu waxin la xam ngeen ne waxu yonent lu ñuy taawil la dafay am maanaa naan les prophètes parlant en parabole hyperbole dañuy wax misaal léebu boo xam ne lu bari daf ciy dugg ñu boole ko ci baat yu gàtt waxe ko noo xam ne borom xel yi lañ ciy wax ndax xam ngeen ne alxuraan ci daanaka borom xel yi rek lay waxal inna fi zalika la zikra li ulil albab inna fi zalika la ayatin li qawmin yaqiluna inna fi zalika inna fi zalika la zikra li man kaana lahu qalbun inna fi zalika inna fi zalika kon suñu borom day wax ak borom xel yi rek nga xam ne bu ñu déggee wax dañuy seetantal ba dégg xam la nga xam ne moom la ñu jubloo wax mooy li ma waxoon sànq bu ko defee kon ni ma wax woon sànq ne nit ki waxtu bu defee bàkkaar mu def tomb bu ñuul ci xolam bu ko jéggaluwul du set mu defati beneen bàkkaar mu defati tomb bu ñuul ba tomb yu ñuul yi bari ba daj xol bi ba muur ko moom li ñuy wax reynul qalbi moo tax alquran naan xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim xisawatun wa lahum azabun azimun sawaawun alayhim anzartahum am likuntum laa yuminuun xatama allahu ala qulubihim ñooñu moom waar leen ak bañ leen waara yam duñu dégg mukk ak waar waar gi sax dafa leen di xatal boo gisee ñu daan rey yonent yi bu njëkk ñi topp seen bànneex te bugguñu lenn loo xam ne lii dana dox seen digganteeg seen bànneex bugguñoo dégg itam li ñuy def ku koy def la la cay dikkal bugguñu koo dégg yonente yi xatal leen ñu génne leen seen dëkk wala ñu rey leen ñii dañ leen a génne la in lam tantahi yaa noor la takunanna min al muxrajina yi noor soo bàyyiwul li ngay wax di nu deel safara ak naan ko def nangam nangam dal la ak di nu tere li nu bëgg dañ lay génne ñenn ñi rey leen ñenn ñi génne leen borom xol bu borom tom boobu ci xol bi bu fekkente ne day faral a tuub waxtu wu tuubee rek tuub moom saabu la waxtu wu tuubee rek ñu raxas waxtu wu jullee te teewlu ñu raxas waxtu wu jàngee alxuraan te teewlu ñu raxas lu mu def rek ñu raxas waaye nag bu fekkee ne nag bàkkaar bi dërkiis na ba dërkiis ni nga xamee ne dàq bu dëgër ci yére or du sagal rek a koy dindi nattu rek moo cay tegu bala ñu ko koy jéggal moo tax yonent bi salaa sama nee na suñu borom dana nangu tuubu jaamam fii xar-xarlewul kon tëj buntu tuub ñaar la bi nga xam ne pour nit kenn ki nit ki la mooy waxtu wu tolloo ci xar-xarle bu tuubatee suñu borom du ko nangu waxtu yoo xam ne dem nañ ba jant bi fenke sow mooy ñu wëlbati lépp luñ daan def lu fi lislaam indi woon ñu wëlbati indi leneen saxal leneen nit ñi dem ba nga xam ne li baaxoon dañ koy rusa def li bonoon la ñuy feeñal moom la ñuy bàkkoo moom la ñuy dem ba am complexe di weddi l'islam wala alquran wala di fekk lu yàlla digle nga ne lii def ko retard la wala lii jamono ji woo indeetu ko wala jamono ji nangam wala lii dépassé nañ ko wala nangam boobaa ba yooyu daj ba daj jant bi fenk ne soowu mooy li baaxoon bonal nañ ko li bonoon baaxal nañ ko boobaa ñu buñ ubbi bunt tuub nag tuubati duñ la jéggal moo tax yonente bi salaa sallam ne foofu nga nekk rek na nga ragal yàlla te wax woo xamee def nga lu ñaaw na nga ca teg lu rafet mu far ko te nga dëkk ak nit ñi ci jikko yu rafet dafa am benn jigéen boo xam ne dafa defoon lu dul noonu mu tuub nag affaire bi metti ko nga xam ne rek mënatu ko xajoo mu ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ ma rey bu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam woowee mbooloo mi ñu rey ko noppi mu daal di jóg di ko jullee moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam si naa ne ko waaw kii def lu bon ba noppi nga koy jullee mu ni leer tuub gi mu tuub de buñ ko séddale woon juróom ñaar fukk ci waa dëkk bi yépp mu doy leen ñu mucc xam ne tuub mooy rëccu rëccu gi mu rëccu ba loolu tiis ko ba mu ne lu yoon def ci moom bu dee rey nañ ko nañ ko lu yoon wax ci moom nañ ko def tuub googu mu tuub moo waral bakkaaram set ba mu mën a xett li ñeneen ba nga xam ne tuubam googu buñ ko séddalee woon juróom-ñaar fukki nit ci waa Madina ku nekk mucc lan ngir la nga ca am doomu aadama bi nag gannaaw moom kullu mawludin yuladu alal fitrati dafa am melo woo xam ne doomu aadama june moom ngay judduwaale mooy xol bu set becc nga xam ne dara nekk gu ci mel ne li ñuy wax ndestayu bol boobu ñu tooyal nga xam ne nu la neex mën nga koo tabaxee nam la neexee wala perkaal bu set boobu nga xam ne benn gàkk nekku ci ñu tàllal ko jox la lu ci salte yaa ko ci salteel bol bi itam noo ko tabaxee rek yow la neex nga tabaxee ko noonu loolu moo tax kon li ñuy wax yar tarbiyatul abaa yi nekk loo xam ne daanaka texet nit ki ci la xaw a aju yar boo xam ne waajur yi ñoo ko war a yar seen doom ci leen jëm gannaaw yar gi jeexital ci jeexital yi fi mu dëkk ak ñi muy jaxasool ñi muy àndal ak ñi koy jàngal ak ñi koy yar ñooy melal nit ki na mu mel su baayam sàgganee ak ndeyam fu mu xamuñu fu mu jëm fu muy dem xamuñu kañ lay ñëw xamuñu ku muy àndal xamuñu lu muy def ci àll bi baale wuñ ko toppatoo seen mbiri bopp rek mu yàqu dem ba mag ngay xeex ak moom te xulóog moom te mënuloo koo jubbanti dëkk bu nekk nga dëkkal ko ca néeg bu nekk nga saxal ko ca te yow yaa ko sàggane woon démb ba mu àgg fii dana texee di bu yemal xeyaamee ngeen layoo mu yey la yonent bi salaa sama dafa ne kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku ci nekk ci yéen daañu la laaj te kenn ku ci nekk li nga sàmmoon daañu la ko laaj ma ne toujours ku amul woon kenn koo sàmm amuloo doom amuloo jarbaat amuloo soxna amuloo dara itam yow sa jibbi bopp am nga juróom-ñaari ndénkaan yu la yàlla dénk yoo xam ne daañu la ko laaj ëllëg mooy sa bët bi loo ci daan xool sa loxo yi loo ci daan jëf sa tànk yi foo ci daan dem sa nopp yi loo ci daan déglu ba mu jeex juróom-ñaari ndénkaan yi nga xam ne bu ci nekk dafa jànloo jàkkaarloo benn bunt ca safara nga xam ne benn cër boo ci moyee bunt safara ba mu jàkkaarloo ngay duggee ni ko sëñ tuwaaxe ci maxaale ko niiraan kon kullu mawludin yurudu alal fitrati innama abwaahu hawidaani aw yumajjisaani aw yunassiraanihi yonente bi salaa sama nee na bépp nit bu ñu jur yaa ngi juddoo ci lu ñuy wax fitra fitra mooy nangu nga lu nekk fu ñu la jaaral lekk nga jaar te soxal bi dara nekk bu ci luñ ci def rek moo cay nekk moo tax ñu ne xamle jàngal xalel ci waxtu ndaw mu ngi mel ne nga boyaade mooy nga xotti ci kaw doj wi mbind mi mbind moom nga xam ne doj bi day day toj rek waaye mbind mi du maasaloo mukk kon xalel bi nga xamee ne dañu ne xol ba ñu gën a yaakaare njub mooy xol bi nga xam ne lu baax a ci jiitu waaye xol bi nga xam ne lu bon a ci jiitu fokk borom sonn wala ki koy yar sonn xol bi nga xam ne dara nekkagu ci yar ak yaru lislaam ak xamal ko lislaam ak xamal ko lu baax ak lu bon nga xam ne daf cee sax ba faw ga bu ëllëgee su màggee fu mën a jaari dana dellu si ci lislaam kooku mooy innama abwaaw yu hawidaani yi aw yu majjisaani yi aw yu nasiraani yi ndeyam ak bàyyam ñoo koy melal nu mu mel bu dee yéefar bu dee julit ndeyam ak bàyyam la kon tarbiyatul abaa yi lu am solo la taasiru wasat yi itam lu am solo la mooy nit ki fi mu nekk nit ki béréb bi mu nekk ak ñi muy jaxasool ñi muy diggaaleel ak li muy gis ci mbedd mi ci kër gi ak nañu mel noonu rek lay mel li tubaab di wax l'homme est le produit de son terroir doomu aadama bi suuf si mu juddoo yaroo fi na suuf sa mel rek nit ña na leen suuf sa melal noonu nit ña nañu mel lañ koy melal moo tax kon nit am na waru gar ndey ak baay am nañu waru gar jàngalekat bi am na yaru waru gar mag ñi am nañu waru gar bu njëkk li taxoon sunu réew mi nit ñi baaxoon mag mu ne da ngaa amoon sañ-sañ ci xaleel bu nekk ba nga xam ne xaleel bi bu nekkee ci lu dul noonu ci mbedd mi sax bu séenee mag donte xamul mag mi it dana daal di nëbbalam doon def wala mu bàyyi ko ndax bu agsee duma ko te bu ko bàyyi yëgee daf koy gërëm rek dara du ca mucc ñu dem ba boo laalee doomu jaabur ñu porté la plainte nga dem police loolu ku ko def nun suñu bopp nun jullit ñi noo ko def suñu bopp kon fokk nag la cay juddoo dal ci suñu bopp mooy suñu xale yi yaroo di ku dëng ñeme mag am fit di def lu leen neex te kenn du ko mën a faj bind nit ca melaw mu gën a rafet mooy cëram yépp nag mu sàkkal ko xol bu set wécc nga xam ne lu ci dugg ci lu baax sax ceeb sàkkal ko cër yoo xam ne mën na jaamu yàlla mën na julli mën na rukkoo mën a taxaw mën a sujjóot mën a diju lépp lu ko jaamu yàlla sant cër yi man may ko ko mu melowoo melowoo xam ne boole na ruux ak yaram mën a mel ni malaayika yi ci baax ak ci sell ak ci jege yàlla ak ci xam ko ma mën a itam mel na seytaane ci kaw bu fekkee ne topp na càgganteem benn mu xir mel ne mbaam xóof wala mu soxar mel ne gaynde wala jaani ñangoor wala mu añaan ba mel ni kund wala mu sopp fayu mel ne gëléem wala mu boolee melo wala mu bëgg topp bànneex mel ne maam ko wala mu boolee melo yëpp mel ne seytaane fi asal taqimin ma radinahu asfala saafilina loolu moo tax li ci gën a rafet mooy di jikko ju rafet kon yarkat bi war na fexe ba jëmbat jikko ju rafet téere yi tëral nañu nañuy yare yaru lislaam xale bi fu mu mën a toll rek ak nañ fañ koy jaare ak nañ ko wax bu ko defee bu ëllëgee mu texe mbokk yi texe ndax dañu leen nit ñett rek la ñaari xaaj ñi bu ci nekk lu tuuti la ñu néew la bi ci def mooy li gën a bari ki nga xam ne ku ko yar mu yaru texe bu ëllëgee topp yoonu jub waaye buñ ko bàyyee mu topp bànnee xam ñi yóbbaale ko ci lu bon mu texee bi bu ëllëgee mu dem safara kooku mooy ñi gën a bari ci nit ñi ci ñi gën a néew bokk na ci nga xam ne boo ko yaree mu jub boo ko yarul mu jub ay benn benn la gannaaw yonent yi ay benn benn la ci nit ñi ku mënul awliya yéen ñeneen ñi beneen xaaj bi itam ci li gën a tuuti mooy ki nga xam ne yar ko bàyyi lay wala du yar mukk buggul lu baax te kenn mënu koo jaarale yoon wu jub mi ne tax bi tax bi bil yasal yi dañ koy faral di wax ayat kon nag jikko yu rafet ak xol bu sell ëllëg lu diis la ca balance yi dañ ko waxe woon sànq naka noonu lewet am na naqari nit tooñ la nga jéggal ko dal di nëbb sa mer wax yonente bi salaa sallam am na bis nit ne ko dama bëgg nga dénk ma mu ne ko bul mer jur asul xagasi bi ñuy wax maanaam wan góoxu mer tuyaabaan yàlla rek ko xam te lu mën a gaaw a àggale nit ci yàlla la waaye li nga ciy dimbali ko da nga fàttaliku bisu mar ba nga xam ne da nga mar ba sa lami bi kole ci sa gémmiñ gi doo am taflit nga xiif ba sa deru biir bi tafu ci sa yàqu gannaaw bi tàngaay bi jàpp la ba sa biir bi di xet sa yuur gi di xet sa xol bi di xottiku nga taxaw ak sa càng mi يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد الجاري وكان الشيطان الانسان خذولا موس بس بغا خامي ني aji tooñ ji ki sàgganoon dana mat baaraamam ak ka neexoon ma bañ a xam diw moo ma yóbbee lépp lu ma dal ñu ma daan àndal musiba bu ma dugg moo ma ci dugal ak a neexoon ma bañ koo xam ak a neexoon ma topp yoon wi yonent bi xotti woon keroog yow yow yow du mujj mu ne yastadi bil azabi misl bi bani wa sahibati wa axi wa fasilati lati tubi wa man fi lati jamian suma yum jihi dana waar bis ba nga xamee ne nit ki dana ne woon siiw ñu fab doom sànni ci safara yi sama mu mucc ñu fab soxnaam sànni ci safara yi te mu mucc sa fab rakkam wala magam sànni ci mu mucc baayam ak ndeyam yépp dana ak adduna bépp ñu dugal leen ci mbugal ni te moom mu génn ci booba xam ne ne tiis na tiisaay bu doy waar ñu di leen sànni ci safara woo xam ne waxtu woo ko jubee rek sa dara bopp wii lay ñooy ala innaha lada nazaatun li shawa taddu mën a dibara wa tawalla képp koo xam ne waroon nga gannaaw lislaam ak alquran moo lay woo foo jaar mu xëcc la ci ay doolinka yoo xam ne day siiw ci sa digg gannaaw bi ba fëll ci sa xol bi ñu xëcc la jëmale ci safara wa waaye jikko ju rafet bokk na ci li gën a mën a texeel nit te lu bokk na ci li gën a mën a salab lu gën a mën a sàkku li ma waxe woon ne nit ki daanaka ci yaafusam akuk njàmbaaram rek akuk dogoom akuk takkoom ci la mën a amee ndax foog nga jihaaranteeg sa bakkan al mujahada moom la budda min haad nga xam ne am na ci gars yi yàlla yi ñoo xam ne xeex nañoo seen bakkan ba kenn mënu leen def lu leen naqare dara dara dara mënu leen naqare ndax lu leen def rek dañu xalaat ne def nañ suñu borom lu ko raw te bu xëy na bu ma fayonteeg kii suñu borom fayonteeg man te kon ma al ko nga gis waa ji muy jàngale rafetu jikko mu ne wala qad amuru ala laimi yasubuni wa aifu summa aqulu la yaani nii lay léeg-léeg ma romb aji soxar mu di ma saaga di ma wax lu bon waaye damay fegu rek téye sama lam téye sama bët téye sama nopp mel ne dégguma ko yëguma ko wala sax ma ne ah waxuma keneen lay wax سيدنا زين العابدين علي بن سيدنا حسين بن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه benn waay taxawal ko di ko yëkk lu mel ne xeme mu ne ko sa waay li ngay wax ci man su fekkee ne dëgg la yàlla na ma yàlla jégal li nga wax ne su fekkee ne du dëgg rek yàlla na la yàlla jégal yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki ma gënal ci yéen te yow xiyaam muy toog fi gën a jege sama jataay mooy fi gën a rafet jikko ci yéen fi gën a rafet jikko ci yéen moo ma gënal ci yéen te ëllëg moo may gën a jege mu ne jullit ñépp ki ci gën a mat ngëm mooy ki ci gën a rafet jikko ki gën ci yéen it mooy ki gën ci waa këram ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram kon mujahada boobu la budda minha te mujahada ji ànd sa bakkan ci maanu bokk na ci ci gën a jafe te maandu li ciy dimbale mooy ragal te ragal gi nit ki koy sabablu mooy teewlu tooluwaay yi muy toll ba amut ragal ba tax mu mën a maandu bokk na ci ñàkk xam looy mujjee kenn xamul sag mujj gannaaw bis boo xam ne buñ taxawee cër yépp bu ci ne da nga wax la nga jëfoon ci kanamu suñu borom te doo mën a weddi dara bu keroogee nag loo waxoon jullit keroog ngay gën a am naqar eeg sa bopp ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne waxal nga jullit loo xam ne ñaawal ko rek nga ci jublu moo xam dëgg la moo xam du dëgg booy jéggi siraat suñu borom dana la téye ci kaw jege ñu jaay ma ca siraat ba nga yéene ci kaw ne la ma waxoon du dëgg dama doon fen la ma waxoon ci diw dara du ca dëgg jaamur yàlla la siraat boobu nag di pom am na ñetti tolluwaay ñetti pom maanaam benn pom bi boo ca àggee ngir bala ngay jàll dañuy seet ndax li ñuy wax amaana maanaam wóor koon fee wóoroon nga luñ la dénk da nga ko joxe secret suñu wax da nga ko téye lépp loo xam ne foogee nañ la ko ba jëf leen taag caag yow daañu fekk nga mel nañ la foogee woon beneen bi ci def ak mbokk la dañuy seet ndax mataloon nga sa mbokk jokkoon nga ko ñi nga bokkal kenn ku ci nekk la nga war a def ci moom sa diggante moom def nga ko wala déet beneen bi ci def suñu boroom ci diggante kóllëreem ak jaam bi yi mu la santoon ndax def nga ko wala déet lënt yi ak bànneex yépp ay fitna lay indi te doomu aadama bi zahiram la ñu xam ci li muy jëf ci kaw waaye mun noo xam baatinam baatinam yàlla rek ko xam loolu moo tax yaaram yi ne rubba xabrin yu zaar wa saaxibu fi naar bari na bàmmeel bu ñuy ziyaare di ca barkeelu te borom a nga ca safara ñu ne itam bari na loxo boo xam ne nit dañ koy nuyu di ko fóon te dagg ca waroon kon nit ki li gën ci moom mooy yemoog biiram ak bitteem li muy jëf ci bitteem lépp na nekk ci xolam na fekk na mu mel la nga xam ne biiram ak bitteem ñoo yem képp allahul mustaan kon dafa war a dimbali ko waaw dina ñëw àgg gën a am sa am ci jeex dimbali dimbali ko tudd yàlla ndax tudd yàlla boo ko fàttee rek seytaane fukk sa sa nos bii ba ma yaasu an zikri rahman nu qayid law seytaan tooloo qarinun te jëf ji mu ci doon nañ ko sellal abu saïd nee na dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu naan waxtu woo xam ne suñu boroom bis penc ba dajale nañ ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi yépp muy bis boo xam ne amul sikk daañu yéeneloo aji yëkkati baatam yoo xam ne dafa naan képp koo xam ne jaamoon nga suñu boroom loo xam ne boole nga ca kenn benn ne ko nit gis ngir ne jaamukatu yàlla nga wala nit ne mën ngaa julli wala nit mi diw mi ku ragal yàlla nga jublu ca lenn rek lu dul suñu boroom na nga dem kooka fay la man du ma bokk ak kenn lenn du ma la fay kee di la fay bu loolu wéyee bokk na ci li ñuy laaj ëllëg njaboot waxewoon naa sànq ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun nee ñu dinaar bi nga xam ne da nga koo dundee ci yoonu yàlla ak bi nga xam ne da nga koo jëndee jaam goreel ko xam nga ne lu am tuyaaba la ak bi nga xam ne da nga koo sarax miskin bi nga dundalee sa njaboot leen ak tuyaaba bu fekkente ne nag nee ñu yool bi ci doomu aadama bi gën a gaaw a jot nga xam ne daanaka balay àgg ca bàmmeele bu ñu ko yenoo mu jot ko moo di ak baax ci nit ñi ak jokk mbokk waaye mbugal mi koy njëkkante mi muy njëkk a jot buy àgg ca bàmmeel ba mooy dew ak dogu mbokk li maa gis ko nekk tëb lu bari kon non kon lu wax tuuti ci yar te dem ci laaj yi ndax yar lu doy waar la moo xam ne sànq ci sàggale ko la muy indi la muy jur la muy jur ci ki ñu yarul ak ki war a yar te yarul moom it li muy jur ëllëg bu ñu taxawee ndax moom it dana am ci musiba mi fii ci àdduna ndax bu fekkee ne doom ji yaruloo ko yarul islam bu ëllëgee boo deexee nga xam ne yaakaaruma lu ku la ñaanal doo am ku la ñaanal ndax bu la ñaanal ma nga ca poomam ma nga ca leneen kon yow sa bopp dana la wàññi te bu ëllëgee bu ngeen la yow mu yey la moom nag ay waxam waxuñu ko moom alquran dafa ne wa maa min dabbatin fi ardi waxtaane nañ ko ay yoon wala taayirun yasiru bi janaahayhi illa umamun amsalukum amul benn luy dox ci kaw suuf ci ndundat wala luy naaw ci jaww ji ci ñaari laafam lu dul moo yéene yëpp rek bu ko seedee ci ay jikko waxtaane nañ ko ay yoon waxtaan bi ci nekk dama koy gàttal tax ma dellu ci tey te xam na li ma waxoon ne am na nit ñu néew ñoo xam ne aajo woowuñu yar ku leen yar ñu baax ku leen yarul ñu baax lu ñoo xam ne aajo woowuñu yar wala tuuti la ñuy aajo ci yar lu tuuti rek jubal na leen lu tuuti jubal na leen waaye am na ñoo xam ne dañ ko dañ koy waxee rek jikkoy rab yooyu lañ amee am na ñoo xam ne dañ naan jikkoy warax am la ñu amee day xam ne bu defee lii lii dal ko rek ci saa moo koy taxaw a ñëw boo ko dee sant balay def la la gën a rek yet wi taxaw waxtu woo tegee yet wi rek mu leen di jaar fu la neexul moom dafa am lu koy xool rek ne ñenn ñi jikkoy def la ñu amee yàq rek da ngay denc sa téere wala sa xaalis boo fonk mu ñëw keja keja keja kej yaa ngi nelaw wala yaa nga dem fee boo dikkee am lu la soof lool fekk lépp mu yàq ko ñenn ñi jikkoy xar la ñoo am na ci góor ñi am na ci jigéen ñi dañuy néewal bi ñu def dara bala ñuy def dara nga wax leen ko xanaa doo def nangam mu soog a ñu def ko ñenn ñi jikkoy bëy la ñu am na mel ne bëy bay xam ngeen ne dafa sob fu bëtum xaj rek te day yéeg fekk jàmbur bu teg ndamam ca kaw mu yóotu ko ñaari tànkam dal di lëkkëlëb këpp dal di yàq fi jàmbur du toog day dox rek fu ne mu ne fa jafee buntu kër bu ne mu ne fa naam daraame kër bu nekk mu ne fa far siise aw siise aussi ne jàll ci kër jëkk def du toog mukk bu ko defee kooku nga xam ne moom it melo la amee woo xam ne melo wu ñaaw la woo xam ne lii dana rëccu ëllëg ñenn ñi jikkoy kañe lañu am ne ngeen gis mu dem ay moom bu nelawee lu mu fab rek yóbbu rawale ca kanam am na ci nit ñi jikko yoo xam ne moom jikko yooyu lañu amee moo tax yar doy waar nit jikkoy jaani ñangoor ñooy ñu ci yées mooy noonu bi nga dëkkal wala bi la nëbbu mi ngi lay fexee bis bu la nee coppet sa xel dana dem ci dee ñii jikkoy wund lañ amee fu ñu nekk seen bopp lañ fa nekkal lu ñu jekku rek mu dem daal di lem waafaat ci sa kanam rek ñi jikkoy lañ fu wow duñ fa jege mukk fu tooy rek la ñuy dal mooy la ñuy waaye ñu amee jikkoy yëmb nag boo gën weñ yi ndax moom lu baax rek lay seet lu rafet lay seet moom lay waxtaane ñii yoo dañuy lakkale lool doo nelaw doo toll yaa ngi dóor sa bopp yaa ngi upp doo doo noppalu mu di la ci ci ci di la màtt rek foo toll am na ci ci nit ñi yoo xam ne loolu la ñu amee ñi nga xam ne di koy sagal la ñu amee wax ju bari rek du ñu nopp mukk waj waj waj waj waj waj fu ñu toll ñii di koy tan la ñu amee ñoom itam bala nga leen a gis rek njëriñ a teew ñu daal di naaw dal di dal lekk dem ñii ñooy picc yi nga xam ne boo bayee ba noppi sa tool ñëw ne ko fuuf ak daal di naaw dem seen yoon sa dugub jépp ñu yóbbu ko ñooñu itam amuñ doole waaye jéeréer ci yées ñooñu itam waaye bu fekkente ne ñooñu ñëpp nag doomu aadama bi def na jihaar kam kàttanam ci jéem a jubal benn suñu borom defal ko tawfiq mu réussir kooku jub mu am ñeent fukki tuyaab wala suñu borom dugalul ci kooku loolu mu bokk ca ñi ñuy wax ñoom dina tahdib tahdib zi bil ihtadiya moom mu am yool bu ëllëgee kooka musiba mépp yem ci kawam ci kaw waaye nag yow sa bopp foog nga def sa kem kàttan dañ ma wax léegi ne am na ay laaj yu xaw a sakkan mais waxtaan bi jeexul noo ngi doon bëgg danoo bëggoon a mujjee li gën a neex mu di yaakaar génn yaakaar moom lu doomu aadama di dunde la ndax buñ ko waxee jafe mbir mi ak fii sam ak métti bi si war a juddoo yëpp si bu sàggane war nañ ko wax it wan ko itam yërmande suñu borom ak it wan ko ne suñu borom bëggul ko naagu ndax yërmandeem dafa bari waaye kon nu dem ci laaj yi xam ci gan wet lay jublu bismillah waaw tegu ko tegu ko fii de tegu ko fii de waaw bu ngeen ko wax ci kii bi lu ñu dégg ko nga xam ne laaj bii la mën a neexee nga wax ma dégg xam ne laaj sànga ñëw jërëjëf kon mbokk yi ne ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaan yàlla yàggal sa taxawaay te gudd sa fan te may la wér te suñu borom yokku la te ubbi la bi jaay Cheikh El Khadim laaj ci dëkk ci nee na maa ngi laaj mais daa am koo xam ne dafa réere mbirum sëriñ bi ba mu koy defal tudde ko liggéeyal sëriñ bi mu jàppe ko am foofu léegi muy laaj liggéeyal sëriñ Tuubaa lan lay jural nit tey ak ëllëg Moustapha Kéré moo ko laaj
waaw kooku day ñaara ci am benn umpale na sëriñ Tuubaa wala umpale na tasawuf maam Cheikh daana wax ne maam Cheikh Mbaye ñeme gor day bokkul ak am fay ñàkk ko gor nag ngeen ne gor ba jaam di am jaam bi ki ko moom sañ na koo liggéey loo lekk ñaqam gor su kenn moomul nag yaa moom sa bopp gannaaw yàlla ñaqam nag mu ne ku ko lekk ci rafet njort wala yàlla bari na sutura wala xëy na nangam bu ëllëgee da nga gis loo foogul woon sëñ tubaa nag dafa ne xafistuma sina an dafatri fala takun an xidmati bi fatri suñu borom xamal na ma loo xam ne sell na ba kenn du ko bind ci téere yi kon boo bëggee njëriñ nag ma liggéeyal te boo may liggéeyal bul sonn bul bul sonn bul tàyyi continuer lu waral loolu jaam bu liggéeyal suñu borom ba am ngërëmam ku am ngërëmam am nga ngërëmal yàlla ku mënul awliyaa yi kenn ku ci nekk am na loo wax ñi xamul yàlla gëm donte xamuñu ne mu demee ñi xam yàlla ñi xamul yàlla weddi wala ñu teg fee weddi wu ñu saxal ñu jàpp ci seenu njàmbur bu ñu maandoo bu ñu maanduwul weddi ñi xam yàlla nangu gëm ndax lu mën a nekk la suñu borom moom moom jaam ñi te lu ko soob def doomu aadama yi jëriñu ñu ko dara bu ko sooboon lim bind lépp mu may ko benn bindee ndax moom lay salu amaay falu ubi salu kenn du ko laaj loo def lu tax te gannaaw moom lu ko soob def te moom moom lépp te kenn du ko laaj ëllëg li nga li nga li nga def nga def ko gannaaw mas naa rey mboolem doomu aadama yi bindoon yépp ngir benn jëmm muy noox alayhi salaatu wasalaam bi mu ko ne rabbi la tadar ala al ardi min al kafirina diyaara suñu borom bul bàyyi ci kaw suuf kenn innaka in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafaran suñu borom tal bi indi mbënn moo xam ne ndox mi wan nañ na suuf si ba mu arrixoon yi ne ñeent fukki mètre ci kaw ñi ne juróom-ñett fukki mètre mboolem ku dugguloon ca gaal ga rek dee te benn jëm boobu rek moo ko jaral mu rey ñooñu ñëpp boo dee jàng téere bi ñuy wax quwatul qulub li abi talibin al makki mu cay wax ne inna lillahi ibadan law faaluhu an la yuqima saata lam yuqimha suñu borom am na jaam yoo xam ne buñ ne ko woon bu saa taxaw yow tam dana fomm kon suñu borom dafa def lu ko soob mu bind xar yi ak bëy yi gëléem yi ak nag yi bind nu ñam ak ñam ak ñoom képp dafa nun ko lenn lu ko ñoom ñu defalul mu may nun di leen sëf di leen rey di lekk di leen yeew di leen def lépp ci coobaree kon suñu borom lu ko soob rek def lay solo may xam nga lu ko soob lay def jaam boo xam ne dikk nga ci àdduna nga liggéeyal sa borom liggéey boo xam ne ñi la xam ñépp xam nañ nga waxe ni nga xam ne gaa yàlla yi fi jaaroon yépp noonu lañ daan waxe wax yi mën naa ëppante waaye kenn ku ci nekk li ngay wax mbindee fii xamuñu ko dañ ko mën a gëm rek ñi rafet njort gëm ko waaye wane nga melo woo xam ne xam ku xam dara ci tasoo xam ne nit ku àgg ci yàlla ngi la nga wax ñeme yàlla taxul ndax ñoom ku leen topp ak ku leen toppul lañ yemale duñ wutub taalibi mukk ndax dégg ngeen li sañ ko wax ci masaalikul jinaan tabban lahu fa innahu law qasada salaaha xaali faqat mujarrada la sarrahu fasuluhu waaye faqat wala yubali bi ijtihaadihi abat ki nga xam ne dafa ñëw féeteeg sëriñ sàngam ba nga ba mu bàyyi ko dem ci beneen sëriñ mu naqari la ne yow alkale ñeel na la yow sëriñ boobu bu fekkoon te yow li la itteel mooy nit ki na mucc rek kon fu mu ko amee rek neex la kon li muy wax bëgg ku ko gëm wala bëgg ku ko liggéey wala bëgg ku ko wuy si taxu suñu borom a ko wax loo suñu borom daf ko wax loo bu waxul nag bu ëllëgee jaam ñi nga xam ne bu waxoon ñu gëm ko ba texe ci moom seen texe suñu borom aj ko ci moom bu ëllëgee bu ñu layoon moom yeey ko bu téyewoon boppam rek bañ a wax bañ a bind bu ñu layoon moom yeey ko waxtaan nañu ko yoon yu bare bare sidina Ibrahima Dasuqi dafa mas a wax wax ju rëy bi mu àggalee ne wa ma qultu hada al qawla faxran wa innama atal ilmi ka la yasaluna tariqati wax ci waxuma ko ngir di bàq wala may dang déedéet waxuma ko ngir sama bakkan yàlla ma sant ne ma wax ko ngir ñu xam sa yoon wi ngir ñi nga bokkal jamono te ñu war a texe te seenu texe ma def ko ci sa loxo ñu xam la ba ñëw texe ci yow sëñ Tuubaa noonu la demee mu ñëwee ci jamono nee daf fekk yoon wi ràtt xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neewal na suñu boroom dana yebal ci bopp bépp téeméeri ak waa joo xam ne day ñëw beesal ci diine ji ba mel na meloon loolu lépp lu ci nekk waxtaan nañ ko ba tey ay yoon yoon yoon yoon yoon للمصطفى نويت ما يجدد سنتها الغراء واني احمل دفا wax fu bari ne mujaddid la mujaddid jëmale doon yoo xam ne téeméeri at bu nekk dana ca am donte ëppante nañu daraja donte rawante nañu waaye kenn ku ci nekk bokk na ci say chart da nga xam yàlla xam yonent bi da nga xam sharia xam xaqiqa da nga xam hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga dem ba nga xam ne doo delloo benn laaj sëñ Tuubaa dafa di asirul masun fi mu naan axfaaliya sirral masun allah akbar wala ilaha illa allah asirul masun bokkul ak ismul azim wal azam asirul masun wax yi bii di kër gën ci bindee sallallahu alayhi wa sallam nee ñu chakl bi ca gën a kawe mooy asirul masun xam ne jëm di ko gis la xewoon ba suñu borom bindagul ak yi xew bu saari taxawe ñoo yem ci yow moom lépp ay teewandoo ci yow lépp ngay gis te boo ku ko def ku ko gis dootoo mën a def lu naqari suñu borom tabaraka wa taala loolu mooy sirul masun wa tax mu ne axfaaliya sirral masun allah akbar wala ilaha illa allah su fekkente ne dafa ne xafis ma siina an dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri suñ borom xamal na ma xam-xam boo xam ne kenn du ko bind ci téere yi xam-xam boobu li nga xam ne noonu la waxee ne duna makatibi al ibadat ma an taxarrubi kulla nasaya jamaa ajru lazi naazaani walam yatub shaqawatan te lu mu fi ummil kutub bind yi may bind di ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala ma di ci julli ci moom ci moom wala ma di ko jëmale ci suñu borom jàll jalaaluhu asa kamaanuhu kawale bépp forme jaamu yàlla bépp jaamu yàlla bu mu doon te tumuranke gi ma tumuranke woon ci kanamu noon yi te nangul leen dara loo xam ne rek yellu ci ku demee ne man lu mu tuuti tuuti tuuti dana ma li ñuy wax coûté cher lu réer ma ciy dikkal ndax bi mu jëndantee la jëndantee kax ba noppi dafa ceeb teg ba nga xam ne la mu doon la suñu borom amee woon di ko jaay te xëy jib yàlla bu fi ñëw waxaale ko te bu ñu la waxee njëg la daw mu yenu ko ba noppi def ko ba mu nag mu ñaaraat ko maanaam yokk ci yeneen yoo xam ne yi moo ko defal boppam moo tax mu ne bu yomal xiyaamee ba kilifa yi xëy yàlla yi di wax bu ma waxee kenn dootu wax mu ne xasida saana ilaahi taxaw na taxawaayu bépp jihaad boo xam ne bépp xare boo xam ne xare nañ ko ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne suñ borom ba mu xoolee xool yi waa jamono bépp xool sama xol bi ma gën cee sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën cee sell gën cee mucc ci bëgg lenn lu dul yàlla la ma def may xaadimam ba ma defee may xaadimam mu yëkkati sama jëf ba mu kawee jëf yëpp muy nga xam ne bu ma koy tagg yoon woo xam ne borom nit yi jàngkati yàlla yi daañu ko dox ay ati at ma dox ko ci jamono yu néew ci ay waxtu wala ci ay bis mooy tawaytu tariqa alqawmi waqta imtidaahihi wa liqat ala xaajaati bi rawdi wal bas bi nga xam ne bu ñu fekkoon dañoo teg ci wilaaya bi teg fee xam-xam ba ñu seet jëmmi kese gi dogu gi mu am farlu gi mu farlu farlu gi mu farlu dogu gi mu am ngor gi mu am fit gi mu am ak cawaati gi mu am ci yàlla ak wóolu gi mu wóolu boromam ak dëddu gi mu dëddu adduna ak maandu gi mu maandu ak yéene gi mu yéene jàmm jàmm ñëpp ak coono gi muy sonn ngir ñëpp jëriñoo ku mu daje ci yow ngay kenn koo xam ne wecc nga mbooloo kon sopp googu mu sopp yàlla ak yonent bi boo seetee xam-xamam da ngay da ngay yër te bind bind ñu di ko fatxul mannaan si joobi abdirahman kon da nga daal li mu wax ne xafisement si na amit defaati bi da nga koy dal di gëm moo leen indi na ci ndax moom bi nga xam ne jàng na ba àggale li ñu fiy jàng ci réew mi bu am ñeenti at yoo xam ne daf ko doon wëndeelu di siyaare nit ñu baax ñi di seet borom xam-xam yi ci la ci diggante boobu jëlee na fi xam-xam yoo xam ne xamuñu ko woon ci réew mi nga indi ko fi jox ko nit ñi li ma waxoon ne jëmm ji nga xam ne dafa am rafetu njortu boppam wala mu dem ba naw boppam woo jaam yi jëme ci boppam te amu ci ndigal benn dundam gépp buñ ko fulal lu day ne teg suuf yi du mat benn bis ki nga xam ne suñu borom a ko digal ne ko woowal jaam yi ndax moom la yonente bi salaatu la moo ko njëkk a feeñu ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bil darki ñi la topp la nga leen yare li ahlu tasawuf di wax himma waaye bu leen yare jàngale mu seet ba xam ne jàngale moom farata la mu samp ay daara yoo xam ne dañ fay jàngale mel ni ñi raw ci réew mi nga xam ne lépp lu waay lënt lay dem jàng fa ku bëgg a jàng fiq dem jàng ko fa ku bëgg a jàng tawxid dem jàng ko fa ku bëgg a jàng tasawuf dem jàng ko fa nga xam ne ku ñëw ci moom tey ndaw war a jàng mu yebal la ca ñooñu nga jàng koo xam ne kii nag tërbiya war ci yow mu soob lay tërbiya moo tax dañu ne wa daa'iyan ila allahi bari na kuy woote jëme ci yàlla waaye bi isnihi mooy li jafe ki koy def ci ndigalal yàlla mooy li jafe ki nga xam ne isnul xaas la ci am suñu borom daf ko koo digal tam nee na wa qaala li qul bi lusi suñu borom moo yebal yonente bi salaa sallam ci boppam moo ne ma wooteel ñu wéeru ci yow wéeru waay nga kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ko yebal wax na ko loolu mu sant ko ko moo tax mu def ko waaye jëf ko rek ci xam-xamu boppam wala coobare boppam wala rafet njortam wala yaakaar ni bu ëllëgee naan wala yoon li muy tagg dana ci am loo xam ne dina fekk li nit ñi déedéet sëñ Tuubaa nag dafay kaamil al kaamil man laa yusfa nuuru maarifatihi noora warihi kaamil aarif kaamil day mel ne docteur bi nga xam ne boo accès rek mu xam sa jàngoro mu doon sëñ Tuubaa nekkul koo xam ne kii daf lay yar ci toroxlu rek wala mu di la àggale yàlla ci yàlla ci liggéey rek wala mu di la àggale ci yàlla ci sikkar rek wala mu di la àggale ci yàlla ci jàng alxuraan rek wala ci jàng xasida yëpp dafay xool ci xam li jàngoroom xam la koy faj mu boole koog loola ne loolu mooy ki gën a mag nga xam ne sëñ Mbàkke Buso ak Cheikh Ibra Fall mën naa daje ci yow ñi nga xam ne ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam buñ seetee ñi gën a féewoo ci saxaaba yi ñëpp boole na leen nga xam ne kenn ku ci nekk moo amee dex da ngay naane nga xam ne kon dafa boole def yëpp ci loxoom sëñ Tuubaa noonu la demee woon ñi nga xam ne ñëpp dañoo dem nemmi ku ko nangu nañu li yàlla def mooy ñu am ndax doomu aadama dafa am zahir am baatin ndax buñ seetee farlu gi ma waxoon rek bari na way farlu yoo xam ne boo leen nattee ci moom rek ñu yées àndaar ji mu fees ñu yées ko ah nit la koo xam ne métit yaram wuy metti wala jàngoro ju metti mu du tax mu wàññi dara ci jaamu yàlla gam daal jaam na mu daan jaamu yàlla bu bu wéree lay jaamu yàlla bu tawatee lu jafe ngoo nit la koo xam ne du tawat xiif du dem ba xiif tax mu wàññi dara ci coono yi mu daan tegoo wala mar buñ ci génnee nag yi nga xam ne daf ko jaayante ak suñu borom muy loo xam ne nit kuy dund rek da nga naan wër koo mën a ñàkk mu jaayante ko ak suñu borom ba du ko def mukk du ko jëfandikoo mukk yi ci gën a woyof mooy dooteel xool asamaan doo geesu sa gannaaw duñ la def nga ne lu tax nga ne lii la doo mer lenn wala dara naqari la lu dul ngir yàlla lu dul ngir nit ki nga xam ne li mu def daf koy lor lor joojee koy dal naqari la tax waaye di leneen loo xam ne sa bopp a tax nga xam ne foo toll li nga yéene sa bopp nga yéene mboolem jullit ñëpp soo sañoon jullit ñëpp texe xam ne yi nga xam ne tere nañ ko ko mbokk ci yi nga xam ne moom la jëndante nga xam ne kenn mënu koo lim bu ñu ko waxee da nga naan lii doomu aadama rek mënu koo nga xam ne toog di waxtaan wala gëmmeen di tëdd nelaw wala tëdd ci lal yooyu yëpp nga xam ne bokk na ci ak yoo xam ne buñ ko dee lim xam ngeen ne ñaar fukk ak juróom-ñett ak fanweer ak ñett buñ ko boolee bari na ci bu bari xam ne kon daf mel ne ku nekkoon ci kaso rek di nekkam ci àdduna fu nekk mel ne ku nekkoon ci kaso loolu nag la mu ko jëndee lu foor a foor a foor la ndax li nga xam ne moo di tawfiqam maanaam li gën di li ñuy wax avantage am dafa ñëw fekk gaar ñu bari jaar mu seet yoon yi ñu jaaroon xam nañu jaare ak fa ñu la ñu am ak li leen yàlla defal mu xam loola seet nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ku bëgg ci yàlla dara ci nga war a jaar xam ne nee ñu mas naa jaar ci yoon ba àgg ci suñu borom tabaraka wa taala mu yen ko ci ay may lu diis moroom bi diw sàngam bu ma ko tuddoon ngeen xam ko mu yenni ko mu dellee suñu borom sufati ko ba mu diis moroom bi diw sàngam mu yenni ko ba ca yoonu ñetteel ba ñu bàddil ko mu jaar foo xam ne du yoon kenn xamu fa kenn kenn kenn du kenn du ko fa foofu mu ñëw indaale loo xam ne kenn mosu koo gis kenn xamul lu mu doon ci li ko suñu borom def nga xam ne dafa boole riche ak fort riche mooy ki bari le fort mooy ki am sañ-sañ mu boole ñaar yëpp loolu mooy li nga xam ne moo taxoon mu boole garaat yu bari xaadimu rasul ci moom lañ ko xamee xubbul xaws jamono ji ne dana fa am mu jaddit téeméeri at bu ne dana ca am naka noonu wakil naka noonu afraad alam yi léeg-léeg dana di di am nga xam ne kon lenn benn màtto bu ci nekk bu kenn taxawee ne maa ca taxaw keneen dana ñëw ne taxaw naa ci keneen ñëw ne taxaw naa ci xaadimu rasul lam dégg bu ci taxaw bu ci taxaw te lim ko jëndee ñu bari waxaale nañ njëgg mu gis si ñoom ñu wàññi ko boo xamee nag doomu aadama bi suñu borom may na ko bu jullee ñaari rakka mu toll ne li jaam jaam yëpp li jaamu yàlla li jaam yëpp jaamu yàlla ñaari rakka mu toll ni nga xam ne kon ñaari rakkaam rek mën na doy bindee yëpp ëllëg seen bàmmeel ak àjjana ak ca àjjana ci tuyaaba ko suñu borom ne wooteel mu wootee dafa woote ci ndigalal yàlla waaye wootewul ci bànneex wootewul ci leneen borom xam-xam yi ñoom buñ ko xañtoo daañu xam ni mu demee daañu ko gis daañu xam ne suñu borom borom sañ-sañ la te dara tëwu ko te ñàkkul dara lépp la am te lu ko soob mu def waxoon naa sànq ci suñu borom ngëneelam ni muy fabe jaam teg ci kaw jaam ni mu fabe abubakrin siddiq yëkkati ko ba nga xam ne gannaaw rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jullit ñëpp moo ci féete kaw fab omar ibnu hisham muy abu jahl teg ko ca suuf ba mu mel ne firaw na wala mu yées ko te ñoom ñaar ñoo bokk juddooloo suñu yaroo ñu léppee xam ne kon suñu borom lu ko soobee def mu bi hima masala du tawfiqi bi ka abi jahl wa ka sidiq ni ko sëñ Tuubaa waxee bu fekkente ne nag dañu ne alxaq yaalu wala yu'la alayhi dëgg moom day féete kaw rek waaye du féete suuf mukk bu mu dëgg mën na tàmbalee sew waaye du dog mukk suñ tubaab yoonam bi ñu koy tàmbalee sos bari na xol yu nanguwul woon te ñàkk a nangu nga dug jubadi waaye seet na muy amee mu jaaxal leen moo tax ñu am sikki sakka borom ci si xol yi nag borom baat bi ñëpp ñoom xamoon nañu te nangu nañu xam nañu saj sas bi ñu ko sas te kenn du ko bay ku dul ku dul moom te bu ñëwul mu booy wax na ne ñi nga xam ñëpp aju nañ ci man bu ñu ajul woon ci man ñu dugg safara kon maay seen xett bi kon ñàkk a ñëw ak jamonoom musiba lay doon ci mbindeef yi gën a bari kon ak ñëw ak jamonoom ñëw ngir raw fi la di xiyaas mi nga xam noonu lañ koy waxe mu ne képp koo xam ne xëccoo nga ak man te tuubuloo sag pay mooy texee di gu ñu bind ca na yi téere mu ne itam texee di képp ku ma soppul suñ borom bind na ko te du ko far te nekk gi ma nekk di jaam suñ borom buy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu war la lu mënu la ñàkk la bokk na ci sëñ Abdullah at nekk xam na ne sama xarit la woon lool ba mu ne ma boo fi dellu séeréer danaa la jox ci katabalaahu yi sëñ Tuubaa bind lu bari katabalaahu yooyu am na ca yoo xam ne du lu ñuy wax kenn du ko nekk li te dafa naan suñu borom bind na maanaam ci xalimaam ne diw sàngam nangam ak nangam du lu ñuy waxtaane ci mbooloo du lu ñuy wax waaye li leer dafa wax ba tayyi dafa wax ba tayyi texee di képp ku aju ci moom te mu nangu sa aju képp ku mu nangu sa taali bi moom lu leer la insha allah texe nga ndax lu suñu borom wax la te lu suñu borom wax du suñu borom wax du dëgg kon nag gannaaw nee na xalituma suñu ami defatri fa laa takun an xidmati bi bi fatri liggéeyal ko bokk na ci forme jaamu yàlla yu gën a mag waaw mu ni waaw ma kon ak ak ak ak waaw xanaa murid bu nekk jàng na ko muy waxee ne ajabani ba ajabani rahmanu qabla al xalqi sabina alfa sanatin bil xaqi koo xam ne suñu borom nangu na sa ñaan wuyu na woote bi nga ko woor juróom ñaar fukki junni at te bindagul mi neef yi dan dana jaaxal ko xamul tasawuf waaye ruu yi nga xam ne ñoom la suñu borom boole woon ak ruuxu yonent bi ñuy sëmb ci géej juróom ñaari géej yooyu ñoom rek a sañ wax loolu ñoom rek a sañ wax loolu ki gis asrul masul rek moo sañ wax loolu suñu borom wuyu na ma nangul na ma nangu na sama ñaan juróom ñaar fukki junni at te bindagul mbindeef yi te dëgg dañ koo doy waar ki àgg suñu borom rëkk rëkk rëkk moo moo ko mën moo ko sañ wax jëmm jooju nga xam ne kon suñu borom nangu na lu mu ko ñaan mu ne wali qaada sirran xaaba an xayri il muhin suñu borom jox na ma mbóot moo xam ne ku dul moom yàlla xamu ko ku dul yàlla rek la wax xaaba an xayrihi suñu borom wammatal na ma mbóot moo xam ne secret boo xam ne ku dul moom suñu borom ma ko jox xamu ko doy waar mbóot mu mën mu doon na mu doone secret ba suñu borom nëbb ko jaam ñëpp ku dul ki ñu ko jox noonu la njëriñ la bare nag jëmm joo xam ne wane na ne moom ca àgguwaay ba tëkk ci la ci la àgg liggéeyal ko mu ne li tax mu ne falaata ko an xidmati bi saakiri sëñ Tuba santaane ne jaamu yàlla ba tay yi jàngale na ba mënatu la jàngale mu samp ñuy jàngale mu jaamu yàlla dëkk ci jaamu yàlla ba xamewul guddeeg bëccëg julli amalu ko woon wax lu dul waxtu wu dëgg ni la julli julli ba julli ci bureau borom ndar julli ba julli ci kaw géej bi ci kaw gërëm dëkkee koor dëkkee tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam dëkkee julli ci moom dëkkee jàng ci alquran fonk alquran fonk boo xam ne mosuñu koo xam ci lu ko jiitu bi mu dikkee daf waxtaan naa ko ci conférence mbiru alquran moomu mag ñi niñ daan jàng alquran ak boole yi wan yi niñ ko daan defee ak bu mu dikkee ni mu ni nga xam ne noonu la leen wane maqaamam alquran ak dayab alquran ak ni nga xam ne noonu lañ ko war a fonke ba dindi defi yi ñu daan def yépp dindi ko teg fee nga xam ne boo bindee kaamil alquran sa tur sax boo ko ci bindee bu ñëwee far ko ne alquran mun la dend ak dara waru la dend ak dara fonk ko fonk boo xam ne la mu gën a fonk ca lay teg téere yi tëdd moom ci suuf ndax fonk suñu borom tabaraka wa taala ak wet ko ak ragal ko boo xamee ne nag jëmm ju demee noonu nga xam ne dem na ba ne baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li rabbil alamina aaya képp koo xam ne am nga wilaaya bir na la ne kéemaan gu suñu borom la kéemaan gu suñu borom wàcc ci suuf si la moo di wute nag bindee fii kon kéemaan la koo xam ne suñu borom a ko wàccee loolu mooy suñu borom def la ko soob lam gën a yéemee fi mu indi ko ci nit ñu ñëw nii di ko ci Sénégal kon li mu ko waxee rek li yonente bi sallallahu alayhi wasallam innama ana rahmatun muhdatun du ma lenn lu dul yërmande gi suñu borom wàcc ci àdduna xam ne kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañoo nëbb léppam ndax lennam xajul ci àdduna ba indi doomu aadama gi kese wan ko nit ñi ngir mu wan leen yoon wi sëñ Tuuba suñu borom dafa nëbb léppam ba feeñal ci moom ak wet boo xam ne tax na doomu aadama gi mu doon ñi ko jege sax dañ ciy am sikki sàkk ci ndax farlu koo xam ne nit koo xam ne doo sonn doo tayyi doo bàyyi xame woo am xame woo am ak ñàkk xame woo dara ci li mbindeef yi nelaw not nga ko not nga nelaw not nooflaay not not njàqare not tiit nga xam ne dara mënu laa tiital dara mënu laa tiital amul dara loo xamee melaw melaw doomu aadama gi yëpp dañ na ba set nga xam ne dara gisul lu dul suñu borom rek fa def maanaam bëgg gi mu bëgg suñu borom nga xam ne cër yi suñu borom ndax moo tax mu ne xawaanan xawaanan taxaalil xaqi wal xaqu diinina sama bànneex par suñu bànneex nun mu ngi jublu ci dëgg maanaam dëgg rek bànneexam leneen lu dul dëgg ak nu mu neex ak nu mu mën a mel ak lu mu rëy rëy du bànneexam naqar lay doon ci moom da tax bi muy woy jaawartu nga xam ne mooy xaatimatul mataaf jaawartu bil fuqaari rabbil muin mal am na ay laaj nan kii lañ ci laaj kon daal maanaam rek ci vital boobu liggéeyal ko moom kenn ku ne war nga koo def ak na nga ko mën a liggéeyal rek ndax bu ëllëgee bu suñu borom di fay ñi ko doon liggéey nga bañ a taxaw fee nga bokk ci ñuy fay
jërëjëf sëñ Sam boobu laaj leer na ci sëriñ Fallou Dal Kébé mooy laaj turu daayira bi lu sëriñ Touba am ci xasida yi ak ñi koy jàng lu mu leen di jural dina daa gi sëriñ bi ne isa katat mu tazza artullahi wa sarbahat malaibul ilahi aqaama qulati ma fasadi mustamani hastu bila kasari ak ñi jàng xasida yi nga xam ne lu muy firi yam teggi lañ war sàppateel ba mën koo jàng ba mën koo jàng ak sëriñ Touba am ëllëg
sëriñ Touba la nga am ëllëg ci xasida yi yàlla ko xam ak moom mën nañ cee xamee ne li mu wax tawaytu tariqa alqawmi waqta imtidaaxihim faliqat qadar xaajaat bi rawdin al buy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day taxañ yoonu gaa yu baax yi daal di àgg xaar di sax suñu borom faj aajoom yépp notal ko xol yi texe yépp suñu borom jagleel ko itam loxoom buy tàll li jëm ci moom te du bank mukk di ko jox lu mu ko ñaan loolu doy na sëkk xasida yi nag ni mu ko waxee tafuqu cheikh tarbiya bi kulli xayr wa tariq wa tariqu tarqiya xasidam yi bu fekkee nit ki mi ngi koy jàng te jox ko xaqam daf koy fóot waxtaan ba tey ne xasida yi ci bari bu ci nekk am na lu mu jagoo lu muy def ci nit ki waaye xasida yépp wax nañu ba tey ni mu waxee ne ñetti xaaj la li mu defoon bi mu demagul ci géej gi ak li mu def bi mu demee ci géej gi ba bi muy ak ci ama shahid naa bi karam ak li mu bind li tàmbalee ci ama shahid naa bi karam ba bi mu fiy jógee waaye leen lu ci nekk bu nit ki bu ko dee jàng te jox ko xaqam ngërëmal yàlla la ci am ngërëmal yàlla nag moo moo féete kaw lépp waaye nag dafa am ay charte bu fekkee nit ki xaalis taxu koy jàng po taxu koy jàng puukare taxu koy jàng dafa ànd ak njàppam jublu penku mel ne kuy jàng alquran fas yéene tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci xasiday sëñ Tuubaa yi salaatu alnabi yi ci nekk mu fas ko yéene jàng feeg mi ngi koy jàng dañ koy fóot di ko fóot di ko fóot ba mu set waxtu woo xamee ne jóge na ca day daal di mel ne wurus woowu nga xam ne dafa jógee fañ ko doon gase mu taq suuf taq ban taq lépp biñ ko raxasee ba mu set ñu ruyal ko ba xelli ko ba liggéey ko ba couleur ko loolu la ko si day def nee na nag li nga xam ne gannaaw am shahid naa bi karam ba bi mu fiy jóge la ñor ji la jañ la lépp loo bëgg ci ko wut boo ko ci sàkkoo am lépp loo ragal di ko ci jañ ba ci sàkkoo yàlla musal la ca mu musal la ca xasida yi nag dafa am tarbiya am tarqiya mooy ci misaal bi ma leen ko waxee rek ni ma waxoon ne nit ki buy jàng alquran wala muy def salaatu ala nabi ni muy féexale xolam ci lépp lu jëm ci àdduna lépp lu génn ci xolam bëgg lenn wala xalaat lenn taatal nag xolam mu mel ne ndab loo xam da nga ko raxas ba mu set nga teg mu xiin tàmbali dal ndox ngay taatal muy taw ndax xasida yi sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo ko bind nee na ak jaamu yàlla am gannaaw farate yi ci gën a màgg mooy tagg yi muy tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki gën a tabi ci mbindeef yi ndax mooy yërmande yàlla ju wàcc ci kaw suuf bu fekkee nag kon diggante boobu yaa ngi jàng xasida gi jël la naan lépp loo ci bëgg da nga ko am waaye daf lay tërbiyee di la tarqiya daf lay tërbiya di la tarqiya te tarqiya mooy di la yëg di la yéege ci yàlla tërbiya mooy di dindi ci yow di ko yi nga xam ne di ko yu bon yëpp la a nga xam ne nag dafa mel ne maraaxib maraaxib jaalibatul maraaxib moom dafa bari ay secret dafa diis bari ay secret dafa diis nit ki mën na koo jàng ci ndigal ni ko sëñ Tuubaa bind rek jox ko taalibe yi ñu war koo jàng mën na koo jàng ci ndigalal isnul xaas bu dee ci al isnul xaas moom dafa am fu ñu ko cay yemal dafa diis diis goo xam ne bu fekkente ne ci al isnul xaas la nit ki na ko yemale fañ ko yemaloo na ca def sàmmonteeg teg yi ni war ndax sëñ Tuubaa nee na bu woo fi daaree xayru kanzi wa xayru maxtasa bihi zu isri al adab lay wax maanaam teggin dafa wax ne hada kii bi muy bind la ci xabaar hada ini dem ijaba al muridina al inaba talab wa lim inama awata adbal wa liyata adamu zaka wajaba il kullu man bi xayri rabati ba fa inu yaxam fawzan wa tifa képp koo xam ne yaa ngi sàkkoo topp yàlla ci lu àndul ak teggin daañu la xañ ak pexe te daañu la xañ njëriñ kenn ngay wut ba tax kon xasida gu mel ne maraxib ak yeneen yi nga xam ne demee na ne moom fekkente ne yaa ngi koy jàng laaj nañ ci nga sàmmonteeg teggin bu fekkee ne itam al isnul am la ni ko sëñ bi bind rek jox ko taalib yi ñu war a jàng xasida yëpp mu mel ne alquran ni ko suñu borom wàccee sant jaam yi di ko jàng muy al isnul am wala salaatu ala nabi ni alquran waxee ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman nga xam ne digal nañ ko jaam ñëpp nga xam ne al isnul am boobu boo ko dee def foo mën a amee benn ki am al isnul xaas mën na faa am fukki junni waaye benn bu ci nekk am na njëriñ am na tuyaaba te dana njëriñ xolu nit ki koy def waaye bu fekkente ne nag ànd naag ay teggiin te teggiin yi bokk na ci bu ci dugal toog bu ci dugal sa wax yi bopp ndax wax joo fa mën a dugal dafa sëñ tubaab bi gën a ko gën a jub loo fa def lu mu rafet lu mu neex lu ko nit ñi lu mu neex neex nit ñi li sëñ tubaab bind la mu fa bindoon moo gën a neex yàlla gën a neex yonent bi moo ëpp njëriñ moo gën moo gën di teggiin nga sàmmoon teg moom bu ko defee kon xasida yi jàng ko bokk na ci liggéeyal sëñ Tuubaa ndax tag yi mu tag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko bindee ba suñu jonni yàlla fu mu toll ñu di ko ci bindal tuyaaba waaye waxtu wu ko ab jaam jàngee itam tuyaaba de jeneen tuyaaba ju bokkul ak tuyaaba jooju yokkooti ca kon ki ko xam ne ki nga xam ne moo koy jàng mu ngi liggéeyal sëñ Tuubaa bu ko jàngee ba noppi ñaan yool ba def ko addiye sëñ Tuubaa muy liggéeyal ko ñetti yoon ñetti liggéey ñu dal ñu dajalo ci leen lu gàttal laaj def naa bari nañu
baara jël kii bi kii moom sëñ Abdou Hadj moo koy laaj nee na mi ngi laaj ci lu jëm ci alquran nee na in daa gis nee na inna anzalnahu fi laylatul qadri mi ngi wàcc guddi laylatul qadr moom alquran te it mu gis ci yeneen ay yeneen hadis ñu wax ne ay sàngat mi wàcc Makka yi wàcc Madina te diggante bi daay at yu soree muy laaj ba xam ndax kon defe na ne alquran daal kon dafa wàcc ci ay at yu yu tegal dafa wàcc ci lu te wàcciwul ci genn guddi dafa wàcc ci ay at yu soree muy la sàkku ak leerlu ci loolu
bismillah alquran dafa wàcc nangam yoon wàcce na ca jóge ci ummul kitab jëm ci lawx mahfuz muy benn wàcc mu jóge ci lawx mahfuz ñëw ci asamaan su mujj fii muy ñaareel jóge ci asamaan su mujj fii ñëw ci yoon teel nga sallallahu alayhi wasallam muy ñetteel wàcc ba muy jóge ci ummul kitab ummul kitab mooy fa bérébu xam-xamu suñu borom bi tabaraka wa taala nga xam ne ñëwagul ci lawx mahfuz kenn bindagu ko fenn ba mu ko jógee ñëw ci lawx mahfuz ñu bind ko ñenn nag ñi koy yër ñu ne aw wenn bind la ci ak xàbb moom alquran juróom benn fukki xisib yëpp nekk fa ba nga xam ne yonte yàlla mu sallallahu alayhi wasallam ñëw na ci adduna bi mu ñëwee ci adduna muy def ñu wàcc lañ ko wàccee laylatul qadar ñu wàccee ko ca asamaan asamaan maanaam ca la ko ma foofu indi ko ci asamaan su mujj si asamaan su mujj si nag muy def gannaaw yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw ngir yar nit ñi te yar da ngay topp nit ki di ko seet fu mu defee lu dul noonu nga xamal ko ne loolu kenn waru koo def xamal ko la muy wàññi tere ko fu mu rombe lu mu waroon a def te muy lu baax nga xamal ko ne lii lu baax la bu jotatee dañ ko def foo xam ne fii yow am na lu ñu la laaj alquran ñëw tontu laaj booba nga xam ne kon fépp foo xamee ne saxaaba yi werante nañu wala ñu jaaxle bëgg a xam luy yoon aaya wàcc da nga xam ne mooy tontu loola sidna jibril indi ko wàcce ko ci xolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi wax ko saxaaba yi wala yahuud yi nga xam ne jàngoon nañu téere yu njëkk ya dal di ciy gis ay xabaar yi ñu xam ne ku dulub yonente xamu ko ñu bëgg a nattu yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko ko laaj ndax bëgg a dimbali yéefari màkka ne leen xamul lii kon du yonent bu ñëwee laaj ko loolu jibril dal di jëlee ca asamaan su mujj si aaya ji tontu loola ñëw wax ko yonente bi la bu saxaa bu fekkee ne xew-xew bu bon am na nan lañ ci war a def yonente bi sallallahu alayhi wasallam aaya wàccegul mu xalaat ci xelam lan lañ ci war a def bu fekkente ne aaya ji ñëw na benn mu xam ne noonu mu defoon noona la mu bàyyi ko ca loolu wala mu xam ne njuumte la mu ne ko bul defat noonu nii nii la indi aaya ji nga xam ne kon aaya yi bi nga xamee ne yéefar yi ñu ngi naan ko teewoon alxuraan yi nga wàcce téere bi noonu benn yoon alxuraan ne tontu ne leen déedéet lu tax ay illa yu bari la wàcc gi ñuy wàcc par aaya di am benn mu sax ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba du ko fàtte ñaareel bi mu bañ a diis diis goo xam ne dana ko gaañ ndax aaya bu daan wàcc day diis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xam ne bu nekkee ci bis bu sedd ba sedd bi gën a tar bu aaya ji wàccee day ñaq ba ñaq wi di sedd sedd di wax nga xam ne bu fekkente ne aayaa ngi wàcc bu waree ci kaw gëléem gëléem gi bu dalul di yës wëtul tànk yi dem ndax day diis ba dootu ko attan ndax bu aaya ji wàcc bu fekkente ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam teg na tenkam wala loxoom benn jëmm bu aaya di wàcc kooku bu xëccul ciram boobu dana damm ndax diis gi mu diis kon bu aaya ji alquran téere bépp mënu la wàcce ndoo kon benn yoon ci xolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkente ne nag aaya ji kon benn ci illa yi muy dikk ngir yonente bi sallallahu alayhi wasallam attan ko ñaareel bi muy dikk ngir di tontu laaj yi ngir saxaaba yi gën koo mokkal mu gën a sax ci xolu yonente bi bu fekkee ne xew-xew boobu ñëwati na xew-xew boobu xewoon ba aaya ji wàcc aaya ji dina ko fàttali ba faw dañuy xam luñ ci war a wattandiku wala luñ ci war a jëf ñetteel bi saxaaba yi mën koo mokkal ndax bu ñëwee woon benn yoon ñu bëgg dal di bind ku nekk bëgg bindal sa bopp kaamil yëpp dana am ñu ko dul am waaye bu fekkente ne aaya day wàcc benn saxaaba yëpp ku nekk bindal ko sa bopp ñi nga xam ne ñoo doon secrétaire yonente bi sallallahu di ko bindal ku ci nekk bind ñu bindal ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yëpp am ko ba téere bi mat ci ñaar fukki at ak ñett gannaaw ñetti at yi nga xam ne wax yi bi dafa wàccul te bi nga xamee ne kii iqra wàcc na ba noppi ba am ñetti at wax yi wàccul ba tax wadduxee wàcc wala li daal di ma moo da akara bu ko ma xale ngir yéefar yi doon wax naan boromam bi daf koo mere léegi wala daf koo bàyyi wala daf koo ban ndax ñetti at yi mu toog benn aaya wàcc lu lu ñetti at yooyu rek kon waxtu wu nekk aaya di wàcc jibril di indi ay aaya ci melo yu wuute li nga xam ne noonu la waxe forme wax yi askal wax yi loolu moo tax alquran wàcce na benn yoon jóge ci umul kitaab ñëw ci loxo mahfuz benn yoon jóge ci loxo mahfuz ñëw ci asamaan dunia benn yoon waaye nag bi muy ñëw nag ci jaam ñi di leen ni mu defal leen ko par ay leçon ngir ñu mokka ko bañ koo fàtte lim lim leen di tontu itam yonent bi ay laaj di tontu itam yëgoot yi la nga xam ne moom la ñuy nëbb ci biir ak pexe ya di ko xamal yonent bi sallallahu alayhi wasallam koo xam ne itam naafiq la ñëw di jëf te li muy jëf du dëgg ci moom alquran ñëw yee ci yonent bi ne ko nangam la loolu moo waral kon alquran wàcc yooyu la wàcc borom laaj bi sant na lool leen leeral nañu di ko dëgg lépp leer na ko kii ma ne mu ngi laaj bàyyi sëriñ lay mooy laaj na àndaale bu baax lu muy jariñ nit ak ba tey toogaa nekk defe lu muy wàññi nit
àndaale bu baax ba ñu tuddee a cheikhul murabbi dañ ko caa teg gis ngeen sànq bi may wax ci alquran yowmal xiyaam kii réccu àndaale ju bon ji banaan yaa way laka laytani lama taxi fulaanan xalilan laqad dallani an dicri bada is jaani wa kaana cheytaan li insaani xasula àndaale ju bon ni mu yóbbaalee nit ci lu bon noonu la àndaale ju baax di yóbbaalee nit ci lu baax ndax dañu ne sang day sange wàll yu day wàlle sang day sange mooy lan sang mooy borom jikko yu rafet day sange bu dafa lay sange ba nga set maanaam daf lay wàlle ci jikkoom yu rafet yooyu le ndax benn nga roy ko wala mu yóbbaale la bu yàggee rek nga mel ni moom wala fi dañoo xam ne lu yàgg ci njaw ci njaw wàll yi day wàlle wàll yi moom gis ko rek daf lay fàttali yàlla joteeg moom day leeral sa xol day setal sa xol bu ko defee mën na la wàllu wilaaya wala mu wàll la wàll la ak baax tax ñu ne day wàlle àndaale bi baax moom mën na yóbbu nit fu nekk dañu ne wax ma sa xarit moo wax la sa jikko wax na sa àndandoo moo wax la sa jikko ndax ko kullu qarinin bil muqarin yaqtadi boo jàngee nahdu fadail boobu da nga gis li ñuy askane sidna alin ne yuqaasu lmaru bilmari ida ma lmaru haadahu ka xad maashahu ka xadwi naali di naali ida ma naalu haadahu mu ni fala tasxab axa aljahli fa iyaaka wa iyaahu fa kam min jahilin arda xaliman xiina waaqaahu na nga wattandiku ànd ak aji bon bari na aji am xel ku baax koo xam ne la ko alak mooy ànd ak ku bon naka noonu itam ànd ak ku baax ki noonu lay baaxale ki nga xam ne dafa baaxul woon te ànd ak moom bu takkoog moom bu yàggee mu baax ñu ne daañu xiyaas nit kat ci xaritam ndax nit ak xaritam dañuy niroo ne ñaari dàll bu ñaari dàll yi dendee noonu la ñuy mel kon fu kiy dugg ki ci def dana fa dugg gannaaw xaritam la te day ànd ak moom fu mu dem yóbbaale ko fu mu dem ànd ak moom day dal di mel ne moom ba gis ko mu ne ñu bu la baax te ànd lañ ñu baax la ca des noonu
Moussa Kébé mooy laaj lan moo gën ci liggéeyal yàlla ñett laaj looy mën a nekk benn lan moo gën ci liggéeyal yàlla luy maye barke lan moo koy xañe soo ko amee
liggéeyal yàlla dafa bari yonente bi sallallahu alayhi wasallam boo gisee mu tontu tontu yu wuute li koy waral mooy ñi muy waxal ñoo wuute da nga gis ni mu ne ne ko lu gën lu may tax a dem àjjana wala lu gën ci liggéeyal yàlla mu ne la fonk sa ñaari waajur fekk booba xool na ba xam ne nit ki la manque ci moom mooy fonk waajur dafa ñàkk fonk waajur ni ma waxe woon ne docteur bi naka aarif billahi bu la nee jàkk rek ñetti téeméeri siddiq ak fukk ak ñett yi nekk ci yow siddiq gii moy la gii sàcc la gii rambaaj la gii bari wax la gii bëgg alal la gii bëgg daraja la gii añaan la gii soxar la gii am noone la gii tayyel la lépp ñu di nekk day jàlloo bu ci wert rek mu xam ne gii mooy jàngoro nit ki mu daal di xam la koy faj daal ne ko yow defal nangam sallallahu taala sunna kon liggéeyal yàlla li nga xamee ne yëreel masaaliku jinaan wax na yi gën ci xam-xam wax yi gën ci jaamu wax yi gën ci wala yi gën ci jëf wax yi gën ci xam leneen yi gën ci jëf mooy li gën a naqari ci ci bakkan benn li ëpp njëriñ ci ñeneen nit ñi li maanaam jëriñ ñeneen jëriñ jëriñ nit ñi gannaaw ndax buñ seetee ne li gën a jëriñ nit ñi ndax sadaqatul jaariya def ci dal di dugg nit ki bu deewee nga xam ne jaamuwutul yàlla mu bàyyi fi lu koy jox tuyaaba luy jaamu yàlla nit ki kum jàngaloon l'islam kooka di ko jàngale wala nit ku fajoon mu wér kooka di jëriñ nit ñi wala garab bu mu jëmbatoon mu meññ nit ñi di lekk ci meññe mi fokk moom ne wala teel bu mu gasoon nit ñi di ci naan ba tey wala doom ju mu bàyyi te muy doom ju baax kooka di ko ñaanal ila axiri ila axirihi ne kon wa afdalul amali ma taaddadat lahu fawaidu ka jahlin qad sabat ka ilmin qad sabat an jahli zi jahlin wa qubhin yaqba wa kullu ma li risali yanfa'u wa kullu ma ala nufusi saqula ka misli infaqin li shakhsin baxila naka noonu li naqari sa bakkan nekk yow ku nay nga ngay joxe sa alal moo ëpp tuyaaba ci yow ni nga xamee ne dañu ne boo demee ba Makka yow mi fa dëkkul ngay wër kaaba gi moo ëpp tuyaaba ci yow nga di fay julli waaye ña fa dëkk moom nga xam ne wër kaaba gi yomb na leen te bis bu ne ñu di ko wër ba dootu jeexital ci seen xol na mu jeexitale ci xoli gan ñi yooyu ñuy julli moo ëpp tuyaaba ci ñoom kon jëf ji gën ci nit ki ci nit mi ngi aju ci nit ki rek aku meloon ak tolluwaayam kon bu fekkente ne nit ki dafa sabantal ñaari waajuram yeneen jëf ji mu def da nga koy wàcc lu jëf ja baax baax ndax maanaam war-war yi nga xam ne dafa war yi nga xam ne bor la ëllëg bu ñu lay téyee moo jiitu ba noppi donte am na jëf ju ko ëpp tuyaaba yi waaye bi moom dafa gën a war mu ngi mel ne boo amalee nit ñaari téeméer nga dem di maye ay junni maye junni bi ñuy maye te yàlla tax da nga am tuyaaba yooyu waaye nag ju téeméer bi nga bàyyi bi nga wala fukk dënn yi yi nga forul moom defuloo ko foruloo ko maanaam fayuloo borom bu yomal xeyaamee ñu téye la nii doo jéggi siraat te fayuloo ko kon nag dafa am farata yi nga xam ne dafa war bu ñu noppee nag jëf yi daal di gënante nag ci kaw ci fam nit ñi waaye gannaaw bu farata yi wéyee farata yi nag mooy yi nga xam ne moom gannaaw julli juróom ak koor asaka ci boo amee lu koor aji ci boo ko mënee weeru koor ah gannaaw bu yooyu wéyee di ci def ay nawaafil lañ ko tuddee waaye yooyu nag am nay war yoo xam ne du naafil rek moo ni ki nga waxoon al wali walidaani ndax suñu borom dafa ne wa abudullah wala tusibu bihi wa bil walidayni ihsana ما بل به إيمان لو كان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من رحمتك وقل رضي رحمهما كما رضي صغيرا ba ci dégg nga ñaanal ko sax bu fi jógee lépp ci lu la war la lu la war la waaye nag nit kon moom kenn ku ci nekk am na jëf ju gën ci yow kii yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko li ba ko laajee lu gën ci jëf yi mu ne ko nga jaamu yàlla te bu ko boolee dara bul bokkaale kii laaj ko mu ne ko xanaa mooy nga topp sa ñaari waajur kii laaj ko mu ne ko xanaa sarax soo xam ne da ngay nëbb sa loxo ndeyjoor bu koy joxe bu ko sa càmmooñ yëg kii laaj ko mu ne ko jàng alxuraan kii laaj ko mu ne ko julli guddi nit ñi nelaw ila axiri kon gannaaw ñetti jëf yooyu ñu tegle kenn ku nekk rek ak waaye bi matale bi mooy jëf ci diis ci xol moom ci ñëpp la gën yow boo nayee dil joxe boo foqalee dil woor mu ëpp tuyaaba ci yow li nga bu fekkente ne itam da ngay nit koo xam da ngaa bëgg daraja torox loo gën ci yow noonu ndax jàngoro joo xam da nga ko war a faj bu dul loolu laago lay doon laago bi nag bu wérul doo mën a waaxu doo mën a daw boo rawantee nit ñi ñu raw la kon nag da ngay dindi laago boobu ba mu wér
jërëjëf bii tam wàllu jigéen ñi la jëm ñu ne jigéen ci topp ndigalu borom këram lu mu koy jural
yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ida sanat almaratu xamsaha wa samat shahraha wa xasna nafsaha futihat futihat futihat laha abwabu ljannati tadxulu minha aywa min aya shaat jigéen bu wooree te bu bu jullee juróomam woor weeram maanaam bu amee alal ju asaka war na ko ci génne bu mënee aji xam ne war na ko ndax charte yi matal na ko mu aji ak yépp luy farata kooku bu ko defee li gën ci moom ci naafile yi mooy topp ndigalal borom këram nee na bu fekkent nag def na yooyu nga xam ne farata la naafile yi suyee boo bañ koo def kooru ngàtt nga yeeg yeneen yépp bu ko deful itam bu fekkee ne dégg na ndigalal borom këram wattu boppam bu keroogee yomal xiyaam ñu ubbil ko bunti àjjana yi mu tànn bu ko ci neex duggee ci kooku góor amu ko jigéen rek ko am loolu moo gën a yomb
mbaal lu mooy laaj ne daa am ku wax ne kenn mën la ramu kenn ëllëg may laaj ba xam loolu ndax waxe ku yewu la wala waxe kuy nelaw la
ngeen baal na ci ko laajee mu baal ma wax ji moom waxe kuy nelaw la ndax su ko wax weddi nga alxuraan weddi sunna hadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan saxal na ramu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci hadis saxal na ramu ay yoon lu bari hadis yu bari yoo xam ne dafa saxal ramu ahlu sunnat ñëpp daje nañ ci ne malaayika yi daañu ramm yonent yi daañu ramm awliya yi daañu ramm ulama wal amiloona yi daañu ramm ba ci ni ñu koy faral a waxee rek doom ju ay waajuram gërëm sax dana ramm ëllëg kon
jërëjëf bii kan ci wàllu jigéen ji la jëm ñu ne jigéen ji topp ndigalu borom këram lu mu koy jural
ينبغي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها فتحت فتحت فتحت لها أبواب الجنة تدخل منها أي من أي شاءت. جيجن bu wooree te bu bu julee juróomam woor weeram maanaam bu amee alal ju asaka war na ko si génne bu mënee aji xam ne war na ko ndax charte yi matal na ko mu aji ak yépp luy farata kooku bu ko defee li gën ci moom ci naafile yi mooy topp ndigalal borom këram nee na bu fekkente nag def na yooyu nga xam ne farata la naafile yi suyee boo bañ koo def kooru ngàtt nga yeeg yeneen yépp bu ko deful itam bu fekkee ne dégg na ndigalal borom këram wattu boppam bu keroogee yomal xiyaam ñu ubbil ko bunti àjjana yi mu tànn bu ko ci neex duggee ca kooku góor amu ko jigéen nekk ko am loolu moo gën a yomb
maanaam loolu mooy laaj ne daa am ku wax ne kenn mën na ramu kenn ëllëg may laaj ba xam loolu ndax waxe ku yeewu la wala wala waxe ku nelaw la.
yéen baal na ci ko laaj it mu baal na wax ji moom waxi kuy nelaw la ndax su ko wax weddi nga alxuraan weddi sunna hadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan saxal na ramu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci hadis saxal na ramu ay yoon yu bari hadis yu bari yoo xam ne dafa saxal ramu ahlu sunnat ñëpp daje nañ ci ne malaayka yi daañu ramu yonent yi daañu ramu awliya yi daañu ramu ulama wal aabiduna yi daañu ramu ba ci ni ñu koy faral a waxee rek doom ju ay waajuram gërëm sax dana ramu ëllëg kon ramu moom ku koy sikk xamuloo li xew wala yashfauna illa liman istada wa hum min xashyati mushfiquna kon ramu charte benn charte la am na ci suñu borom d'accord rek waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yadxulu fi shifaati rajulin min ummati mislu rabiata wa mudar wax nañ ko ay yooni yooni yoon benn waaye rek sama xeet bi dana ram lu toll ne jiir rab banu rabia yëpp ak jiir mu laj mu lor yëpp maa ngi ko daan misaal lu toll ne wala yëpp ak tukulóor yëpp ci ram benn waaye ci xeetam ne mu ne Seydina Ousmane yowmal xiyam dana ram juróom-ñaar fukki junni yoo xam ne ku ci nekk safara yey na la da nga waral dem safara ram moom ku koy weddi sa xam-xam guddul ndax alquran boo seetee sara yëpp alquran saxal na ramm xadis moom xadis yu bare bare bari idul jeex saxal nañu ramm ndax nit ñi dem ñi ñi dem àjjana ñii nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala dafa seet seen jëf gërëm leen jëf ji sax jarul àjjana ndax kenn mënu koo jëf waaye mu dugal leen ne leen ci seen jëf dama leen a fay ak ñi nga xam ne ci yërma leen kese ak ñi nga xam ne way ramu yee leen ramm ramu nag ay darajaat la ndax dana nit dana dugg ca barab ba ba noppi ca safara wa aji ramu jëlee ko fa génne ko fa xanaa gis ñu ne xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax te xam ne ne yonente moom maa yantiqu anil hawa benn waay boo xam ne dafa nekkoon ci àjjana di yër safara gis ci benn waay waajo da xam ko ba ma ko mujjee wax fa yàggul waa ji xam ne ko ne ko eh yow xam nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko fàtte nga benn bis yow yaa ngi jóge béréb sàngam di dox nangam nga dox ba sonn mar mar loolu amuloo ku la may ndox nga romb suñu kër nga ñaan ma ma dem tam fa ndox may la nga naan mu ne wax nga dëgg fàttaliku naa ko ne ko waaw yow dooma kon ci nul suñu borom rek mu baal ma jëlee ma ci musiba mii safara wi mu ne suñu borom kii de mas na maa defal njëkk te fayu ba ko dama bëggoon nga jéggal ko mu ne ko jéggal naa ko na dem àjjal kon xaa loolu gën a wax yonent bi la de sallallahu alayhi wa sallam wax yonent bee de
sëriñ Baddo Kebe mooy laaj nee na dafay laaj xam-xamu tasawuf ak fiq waaw ñett ci la xam-xamu tasawuf ak fiq ban moo ci gën
benn mu cee manqué fiq moom mooy jàngale jëf yi moo lay xamal na ngay jullee na ngay woore na ngay aje na ngay natte asaka na ngay jaayante na ngay jëndante na ngay séye na ngay fasee na ngay nelawee lépp moo la koy xamal kooku moom mun la ñàkk ndax jaamu yàlla te xamuloo moom du neenu pola fokk nga xam li ngay jaamu kooku mun la ñàkk li ngay jaamu itam fokk nga sellal ko sellal gi nag tasawuf moo la xamal sellal gi dañ ne ku neenal xam-xamu fiq da nga alku fii ci àdduna ci atte ulama yi ku neenal xam-xamu tasawuf da nga alku ëllëg ci atte suñu borom tabaraka wa taala ma misaal leen xam-xamu fiq ak xam-xamu tasawuf ci julli wala ci jaamu yàlla bu leen neex fiq dafa lay sant ne la bala ngay julli na nga fat ndox moo xam ne soppikuwul ci melo soppikuwul ci xet soppikuwul ci cafka nga raxas ci cër sàngam ak cër sàngam toftalee ko toftalee sàngam booy julli charti julli na nga jublu penku na nga sol lu laab xeeram na laab béréb bi nga nekk na laab nga jublu penku julli bul wax bul lekk boo ko defee sëq moom wàccee naag yow donte ba nga kabaree yaa ngi xalaat sa ay bor sa place yoo war a dem football ba ko gañee mbëri lambe ko daan diw sàngam kañ nga may fay li ma ko ameel fu may jëlee moo fay diw ba ba ngay sëmmali fekk du la ne sa julli gi baaxul tasawuf moo naan la julli woo ndax julli li ko tax a jóg mooy déeyaale suñu borom tabaraka wa taala fa nga sellale sa jëmm nga war a sellale sa xol ci lépp lu dul yàlla bi nga ne allahu akbar da ngaa signéenteeg yàlla contrat wan ko ne sa lépp sa cër yépp mu ngi jublu ci moom mayetoo lenn ci sa bopp lenn sa bët yi sañetoo cee xool lu jëm ci àdduna sa noppi sañetoo cee déglu lu ñuy wax ci àdduna wala luy yëngu wala lu mu doon yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla nga teewlu màggam gi ak rëyaayam gi ak kàttanam gi ak sañ-sañam bi ngay jàng alquran bi nga xam ne moo ko njëkk a jàng xam ne ay waxama nga teewlu ko seexal sa xol xam ne yaa ngi taxaw ci kanamu buur bi sa cër yëpp tiit sa xol tiit nga amuk ragal boo rukkoo nga xam ne yaa ngi damm sa jëmm ji ci kanam màgg suñu borom bi tabaraka wa taala boo sujeetee nga xam ne sa kanam gi nga gën a fonk yaa ngi ko teg ci suuf ngir wan suñu borom ne ko wàcc naa toroxlu naa mokk naa damm naa sama bopp daalu naa bi ngay rukkoo ngay teewlu sellam gi ak màggam gi ak kàttanam gi bi ngay këpp sëga nga teewlu tabeem gi di ko ñaan ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee ne jaam bi waxtu mu këppee jéem la gën a jege boromam na ngeen farlu ci ñaan waxtu woowale kon tasawuf moo lay xamal loolu lépp tasawuf mënu la ñàkk imam malik dafa ne man tasawafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa ومن تفقه ومن تصوف ولم يتفقه فقد فقد فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد فقد تحقق كي خامني دا فا توب فقه وتي تصوف moy dana jëf jëfi kaw yi ba kenn du ko ne aji woo kenn du ko ne julli woo kenn du ko ne wooruloo waaye du ca am dara nee na kooku ak zindiq la zindiq mooy kuy feeñal ngëm ci kaw te ca sa biir di ñàkk ci waaye zindiq nag maanaa yu bari la dafa def tasawur maanaam dafa évoluer ci taarixul islam ki nga xam ne nag dafa topp tëq tawat ci tasawuf faqat dafa sax faatix la ki nga xam ne nag dafa topp tasawuf wacc fiq zindiq la ki nga xam ne boole leen ñoom ñaar mooy mutaxaq dëgg mooy ki jaar ci yoon yu jub dëgg dëgg dëgg kon fiq moo lay jàngal na nga koy defee ci zahir tasawuf moo lay jàngal nañ koy jëfe ci baatin ñoom ñaar ñëpp kon kenn mënu cee ñàkk ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laajee sellal dafa ne an taabudallah ka annaka taraahu kon mutasawwif mooy kii jaamu yàlla mel ne mu ngi jàndoog moom te in lam takun taraahu innahu yaraak ndax boo ko gisul mu ngi lay gis waaw mu des ñaar waaw léegi sëñ bi dañoo am benn laaj bu gàtt rek ki nga xam ne ni dafa maanaam ñaar ñaari njuréel moo am njuréelu yaram ak njuréelu roo lu mel ne yow mën naa ko gisi wàllam ba ba mu jeex léegi ki nga xam ne ni dalaa jur ci yow ma lattu bi rabbikum bu ngeen bokkee ñëw fii ci àdduna te bokk leen am réew yan tegtal la la mën a jox ba mën laa jëriñ te bokk leen réew ki nga xam ne da ngay na bokk da ngay maam dalaa jur ci yow ma lattu bi rabbikum ci njuréelu gros bu ngeen bokkee ñëw ci àdduna te mel ne bokk leen même réew xam nga léeg-léeg gis ku nekk ci Amérique wala Europe jébbalu ci koo xam ne dafa nekk fii ci Sénégal yan tegtal la ko mën a jox ba jëriñ ko
sëriñ dafa am ñaari sëriñ ba ñett cheikhu taalim mënul ñàkk mooy ki lay jàngal kooku moom loo am am sëriñ baatin du tee nga am ko cheikhu tarbiya mënu la ñàkk mooy ki nga xam ne cheikhu tarbiya bi xarit mën na ko fee remplacer xam-xam mën na ko fee remplacer ànd ak ñu baax nekk ci milieu ñu baax mën na ko fee remplacer kon ci tarqiya bi nga xam ne moo koy texeen wala moo koy àggal ci yàlla mooy ki nga xam ne keneen mun ko faa remplacer cheikh cheikh bi nga xam ne cheikhu tarqiya la moom bu fekkee ne mat na la mu doon bu nekkee bu nekkee Afrique nga nekk Amérique itam lam lay jëriñ moom dana la ko jëriñ bu fekkente ne topp nga cheikh taalim bi ak cheikhu tarbiya bi maanaam bu fekkee ne yow jullit nga dëgg te xam lu nga sa diine ba di ko jëriñ moom dana la mën a jëriñ ndax sëriñ bu mat sëriñ fa gën a sori ci teggo fa gën a sori ci sowu ñooy topp ci moom sëriñ bi ma sëriñ dëgg dëgg dëgg bu ñuy dugal taalibam ci bàmmeeram day am moo koy aw sëriñ bi ma sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg waxtu woo xamee ne bii diggante bu gën a gàtt dana ca fàttaliku képp ku aju ci moom juróom-ñaar fukki yoon lay wax yeneen yeneen tes fii ne ñeen fukki yoon juróom-ñaar fukki yoon wala ñeen fukki yoon kon sëriñ bi moo mën a fay taalib bi xàqam waaye taalib bi mënu koo fay xàqam su fekk nag sëriñ ba mat sëriñ mat sëriñ nag wax nañu lu bari ci leen cheikh bu toogee ci garab war na xam nu reen ya toll war na xam xob ya ñu toll jën yee xeex ci géej ga fu mu toll war na leen mën a atte taalibeem bu nekkee ci gannaaw jabal xaar men men lantaan bi dox ci gannaaw war na ko mën a faxas kon nag ba tey awliya yu gis ngeen ci misaal yi dinaan noonu ñu leen misaale ni ñu wutee ni yonent yi wutee la awliya yu wutee waaye nee na bépp wàllu boo ci aju donte lott na ci xet li jaam bu sori ci suñu borom ci baaxu wàllu boobee la lay xetlee moom wut fa wàllu ma dégg ñu ko wax rek ci masaay bi dinaan kon sëriñu jébbalu bi moom na nga masal xàqam rek yow foo toll ndax dana am anam yoo xam ne nam la cay jëriñe du aajo mu gis la nam la cay jëriñe du aajo mu gis la mën na la gis mën na la bañ a gis waaye nag li mun la ñàkk mooy ñaari sëriñ ñi ma waxoon léegi ndax nit ki fokk war na xam diine xam sa diine faaw nga jàng ko jàng nag ajuwul ci àlluwa rek wala ci téere rek boo ko laajtee bu la itteele rek nga topp topp da nga ko xam naka noonu tarxee tarbiye itam yar la yaru l'islam kooku itam boo takkoog ñi am yar yaru l'islam wala nga di leen faral a laaj wala ngay jekk yàlla ñoom tamit nga wax nga jàpp ko di wala nga di leen jéem a roy da nga ko dal di am la ca des nag nga xam ne mooy la ñuy wax al ubuwatu ruuxiya bu fekkente ne taalibe bi benn dafay koo xam ne suñu borom bind na ko ca àjjana ba noppi waaye mu bëgg a àgg ci yàlla wala mu bëgg a am ngërëmal yàlla wala ki nga xam ne suñu borom dafa sampoon géttam ca safara nga xam ne li muy wut mooy nañ ko sempi dugal ko boole ko ci waa ajjana wala ki nga xam ne moom xam na ne moom xam na ko wala wala mën na ko bañ a xam mën na ko bañ a xam lu ko àggale ci yàlla dëgg dafa am lu ko def lu ko àggale ci yàlla nga xam ne kooku laxasa mën na ko caa àggale wala def lu tuuti mën na ko caa àggale ñoom ñëpp kon bokkuñu kenn ku ci nekk la ngay wut ci sëriñ ba ak la la sëriñ bay jëriñ ak lam la war a defal bokkuñu wuute nañ ko am na ci ñoo xam ne fokk ñuy faral di gis sëriñ bi ci ziar mooy borom tilim yu bari yi borom tilim yu bari yi moom jigu leen wala ñu di ko fàttaliku bu ba ndax sëñ dana dem ba image am maanaam meloom ñu mel nga di ko xalaat nii ci sa ci sa xel rek dana la jëriñ dana tax loo doon bëgg a def ci lu baaxul nga bàyyi ko wala loo bëgg loo tàyyee doon def nga ko def nga fàttaliku aw meloom rek ndax nit ki sax jullit bi dëgg war naa am ay jëmm ay nit l'islam yu foor yoo xam ne léeg-léeg dana jëloo ci seen image ak seen i jëf ak seen i melo mu daal di koy daggi ba li ko jafe woon yomb ko ba di nga li mu bëggoon mu mën ko muñ
benn benn benn ngay may rek kese ko ma ma ne am na ko fi laaj ku fi bind ñaari laaj ci arab la ko bind benn mi ngi ci laaj diggante murid ak tijaan yi benn bi tam mi ngi laaj ñi nga xam ne dañoo tudd ay murid taarix duñu roy defuñu nag turam te duñu roy maanaam duñu duñu roy daal maanaam di koy murid taarix defuñu nag turam ñoo bëggoon wax ñu mu wax ñu turam mën na ko bañ a wax waaw kon tax na dañ ci amoon digal benn bi def ki ko laaj moo ne dafay laaj yonente bi alayhi salatu wasalaam bi xare bi jeexee dafa waxoon saxaaba yi ne leen génn nañ ci jihaad ju ndaw ju ndaw ji yeeg ñoom jëm ju mag bi mu jihaad nafsi muy laaj ndax ku faat ci jihaad joojee daraje sëriñ ngay am wala déet ju mujj ji wala ba tey ndax mi ngi laaj itam bari ndax manis naa am daraje manis naa am së daraje sëyit ci tool wala déet ma am sëyit waaw kon boobu ma faal benn waaw
benn bu njëkk bi mooy
tëj tëj
benn bu njëkk bi.
bii ne dafay laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam. bi jihaad ji jeexee. dafa wax saxaaba yi ni leen. léegi génn na ci jihaad ju ndaw ji.
waaw xadis la boo xam ne sax am nañu si sikki sàkka bokk ci ñu tuddee sa saxaax yi dëpp waaye ba tey daañu ko ji mën a jëfandikoo ci tarxib tarxib ba noppi sax mën na wér te it lu yenu maanaa la. muy message bi maanaam muy sëlsëlo bi ku ci nekk loolu sax la noo ngi jógee ci jihaar ju ndaw ji jëm ci jihaar ju mag ji ñu ndax jihaar ju ndaw ji diir bu gàtt la nit ki mën na dee wala xale bi jeex jihaar ju nafsi nag day sax diiru dund nit ki te bakkan moo ci gën a naqaree not bu jafee not la jihaar ju nafsi moom Cheikh Abou Isli Bistami nee na te laa xaw la bakkan bakkan rek a tëb nangami at a ngi ni may jànkonteeg moom mu mu wér ba set rek jafe ci koo xam ne kii moom si abu yasid bistani nee na yamal xiyam bu ko safara ne woon jàkk tiit ba fay moom abu yasid bistani te nga dégg ci jihaadu nafsi muy jàmbat bakkanam sayidna sahlu sahlu ibn abdullahi tustari daf daan def bu jugee kër benn mbokk diineem bu mu bëgg a ziyaare buy summi dàll yi ñu dégg ñuy def ci ci ci ci ba gis ñu laajte ko mu ne nafs bi laay dindi wacc ko ci ci dàll yi ndax ma dajeeg sama mbokk jullit ci xol bu set ci nafs bu yaru ba ba di def kon buñ ko tuddee al jihadul akbar lu ko yeeyoo la ndax bakkan mooy xiir nit ci mooy xiir nit ci moy mooy xiir nit ci sàngara mooy xiir nit ci bañ bañante bañ nit mooy xiir nit ci njistal mooy xiir nit ci rëy day wax ne njistal ci boppam moo fi gën a jafe mucc ba ñu ne nit ki bu fekkoon dafa ub néegam ngir bëgg a sellal kabar di julli nit ubbi néeg bi gis ko fekk ko muy julli neex boobu ko loolu neex rek ngistal la ndax dafa war a yemale nit ki ak dara nit ki gis ko ak dara ndax jaamu yàlla bi waru cee boole dara Seydina Aïcha ne ngistal lu jafe la ndax nit ki lu tuuti nga xam ko ci moom ci jàdd ba noppi nga bëgg ko wala nga bañ ko te am lu tuuti lu toll bën bën ko sa ci baax nga xam ko ci moom doy na waar jeex nga xam ne kon bakkan dañu ada aduwika nafsuka lati bayna janbayka sa noon bi gën a màgg ci sa noon yi mooy sa bakkan bi nekk sa diggante ñaari sàlli nag kon bu ñu nee mooy jihaadul akbar leer na ndax jihaad boo xam ne biiru bakkan la biiru bakkan la ba ba ngay dee te du du jeex mukk kon bi ci tegoon nga ne moo doon te xare borom suux yëpp dañoo am ay ibnu xaas kenn ku ci nekk da nga wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom nga jàlloon jëfëran mu ne la doo amuloo sëriñ may sa sëriñ may naa la ndigalal jox la wird may la ndigalal joxe ko nga xam ne képp koo xam ne ndigal lam la jox nga xam ne moom mi ngi ko jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàpp nga ko bu yomal xiyaamee moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci diwaasita seex yi moo am pay da nga xam ne mooy yor ba ca aju bu ëllëgee moo la ko fay ki nga xam ne nag jullit la boo xam ne nekkul ci tariqa jullit la ndax buñ seetee li tax ne tariqa am njëriñ buñ ne ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam amul woon tariqa jamono yi saxaaba yi ak taabi'oon yi yëpp amul tariqa mën nañu ne jamono yi jahiliya bi l'islam ñëwagul ba ci l'islam daawuñu jàng naxwu te waxi arab la lu tax ñooñu aajowoo wuñ ko woon aajowoo wuñu woon naxwu dañoo juddu ci làmmiñu arab namp ko dëkk ci di wax arab yàlla xam nañ ko ni ñu xamee wolof nga xam ne aajowoo ñu di ko jàng bi nga xamee ne nag ñun ñi nga xam ne juddu nañ ci jamono booba ñun buñ bëggee dégg arab bëgg a xam li ci téere yi bëgg a mën a bind ay téere bëgg a bind lu leeral nit ñi fokk ñu jàng ko ñooñu buñ leen nee luy fi àll duñ ko xam luy fa'il luy mafoon luy zarf luy sifatul musabba luy chef chef zaman luy chef chef makaan yooyu yëpp zarf makaan amul yëpp luñ ciy xam waaye teewul seen arab day jug muy itam nag bu ñu bëggee niru saxaaba yi ak taabi one yi am na ñu itam kon ay jumtuwaay yu ñu war a jëfandikoo yoo xam ne ñooñu aajowoo wuñ ko woon waaye nun nag dañ koo aajowoo ndax suñu jamono moo demee nii nun la xam yàlla gën a jafe nun la àgg ci yàlla gën a jafe ndax li nu gën a sooy yonent bi jamono jëpp ji la gën a sooy yonent bi moo la gën a néew leer lu dul waaju baax ñëw leeral ko kon nag suñ borom gannaaw dafa gën a le war a saxnaa baadam fooqa baadin darajaatin ndegam yonent yi la gën a leen rawati la nit ñi te nee na kat wala laaxirat akbaru darajaati wa akbaru tafdilan alaxira la gën a le ba rawateeti moo raw gënante fii ci àdduna kon nag ku bëgg sa njëriñ yow mu jaral la ko nga gëm nga dugg ci tariqa la borom wax nga di ko jëfe da nga am yaakaar bu ëllëgee ndax da nga koo sës ci loo xam ne ndax julli gu rafet dëgg gu nit ki julli ba noppi mën a waat ne nangu nañ ko jafe na koor gi noonu leneen li noonu waaw boo ko dee def nag ni ko ñëpp defe boole ci nag tarixa bi li mu la sant yow li yàgg yàgg certuloo dara dara dara dara te bu fekkente ne kooku li mu wax jëlee ko ci yàlla bi salaam te xutbul xawtu la da nga wute ku ku fa jaarul woon démb da ngeen wute ba faw da ngeen wute ndax fu mu dugg fa ngay dugg ndax nit fu mu dem fa lay yóbbu bagaasam waaw kon nag asalaamaaleykum wa rahmatulah ni